برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان di ma ndokkeel mbooleem ku teew te war a teew ci loolu di ndokkeel tamit képp koo xam ne teewuloo wala soxol teewoon ànd ak mbooloo mi di ndokkeel tamit ki teewul te garam teewul te war a teew kon li muy suy ñu ngi ndokkeel mbooloo umma islam bi yépp foo mën a nekk ñu ngi lay na yow ci mbindaafoon yàlla yi waaye di nuyu tamit xususiyan ñi nga xam ne ñoo gëm sariyante al Muhammad ba pare amaat beneen ndollal ci tariqa Cheikh Ahmadu at Tijaani su waaye mën nekk rek ñoo koy ndokkeel ci loolu ndax loolu may la boo xam ne min hindi la yàlla koy maye du ñëpp ko mën a am am na ñoo xam ne loo mën a wax ci Seex Tijaan yi seen xol daf koy refoulé du ko mos a dëggal mukk loolu nag musiba la musiba la ci Tijaan bi fii ci àddinaam ak alaxiraam yépp musiba la ci moom loolu day teg rek ne moom xamul luy Cheikh Tidiane waaye Cheikh Tidiane pour ñëpp la pour sépp la ba faw la waaye ñoo ngi ndëkkilaat ci biir tariqa tijaaniya ñi nga xam ne ñoo gëm faydu ibrahimiya te mooy cheikh al islam alaaj ibrahim ñas ak kaw la ko képp koy nekk taaliba bàyyi di ko ëyoo foo may nekk ci àddina ñu lay ndokkee di la nuyu mu nekk beneen xusuus boo xam ne it yàllaa ko wàccee te muy dëgg mu jóge ci yàlla subhanahu wa ci lu amul sikk sakk ñi ko mos xam nañ ko ñi ko mosul xëy ñu koy weddi waaye ku ko mos nangu ku mos nangu ndax dëgg la boo xam ne dara waaye ñu ngi ndokkeel nag xadara bi nga xam ne it wax dëgg yàlla dafa nekk xadara boo xam ne bu sensible la mu nit ci biir di wax yëpp waaye mu nekkat ci kër Cheikh al Islam mu nekk butoolu Cheikh Ibrahim foofu tamit xadara dafa génn boo xam ne ñi yàlla may xusu see dëkk ñoko mëna gis te ñoko mëna nangu té loolu yépp benn bu rek ci ma wax alquran mën na koo dëggal mën na layal hadith yi dal Muhammad sallallahu alayhi wasallam dana ko dëggal dana ko layal oko Cheikh Tidiane dana ko dëggal dana ko layal oko Cheikh al Islam dana ko dëggal dana ko layal layu leer nañ ñu xamee tamit ñoom dëggal nañ ko te ñu koy leer kon ñu santaal bu baax di ndokkeel mbooleem ko teew di gërëm yàlla bu baax ci suñu munaasaba bi démb bi munaasaba la boo ne wax dëgg yàlla képp ko fa teew te feebaroo dafa jële ay yokkute ak wér jaar na fi war a jaar mel na ni war a mel waxkat yi waxeen lañ war a wax sikarkat yi kasaalika dellukat yi kasaalika kon lépp rafet na waaye te doo ko rafet le ndaxte ko rafet luwul moom dara mu rafet ci moom mu mel ni ku feebar rek ku feebar moom loo mos mu naqari fekk la nga mos naqariwul yow yaa feebar day neex ci yow moo feebar waaye jotaay démb bi tamit ku ko fekkee te neexuloo ko mooy da am feebar waaye képp ku yàlla may wér dëgg dëgg yàlla xam nga jotaay bi neexal lool waxtaanee ya rafet na set na sell xam-xam ya rafet na set na sell na mbooloo mi ma toogoon ñëpp ku ne xool xam ne ñii mbooloo dëgg dëgg ay nit yu sell lañ seen kan yaa rafet dafa yang ngi tak nga leer borom subhanahu wa taala comme ni ko yàlla ci alquran suñu من أهل السوء ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كالشعير أخرجت سدأه فأصله فصعد فالصلاة الصغير دكتور يقتلكما كما لا جعل أنت ساروا ñu ngi sant ak yàlla bu baax ñëwatu nañ démb amoon repos ngir munasaba moo taxoon tey nag ñëwaat nañ di beesalaat suñuy kaddu di beesalaat suñu xel di beesalaat suñu xol ci li tax yàlla benn néew mooy téere yàlla bii nga xam ne moom sikk amul yàlla ko wax yàlla wàcce ko suñ kaw ñoo te àttewoon topp la ndax li wax wax dëgg yàlla jëfe na moo tax lislaam léeg-léeg nga dégg ay gars ñu naan am ñoo xam koy ñàngal dañ ci yokk loo xam ne bokkul ci léegi islam moo jëfe rek islam bi mooy chariatu islam yoonu islam comme yooyu yu teyu sa yombut rawatina xam-xam bi nekk ci biir islam yooyu mos yomb mukk benn bu yomboon yàlla du yu bari pour leer islam rek non yàlla yónni ay wuleel yu bëri pour islam rek la kon mu nekk la ko jafe na mën ta yomb ngi bu baax di kontaan di nuyu nit na Cheikh Ibrahim bi Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñaan subhanahu wa taala yàlla ko ci di nuyu ay taalibeem fooy ma ne waaye di nuyu aussi imaamu akbar léegi lañu waxtaan ak moom waxtaan bu rafet waxtaan bu sell mooy ku baax ku sell ku bëri yërmande ku ku am xel mu sell xel mu dal lami bu am lijaaba bu am maarifa ku am tëmkiin ku am Muhammad Rasulullah tabaraka wa taala ku bëgg Cheikh Ibrahim sànq ñuy waxtaan ay kàddu yu rafet ak yàlla yal na yàlla fay ko mbaax moom ak njabootam yëpp ak képp ku ko nangul Israël yàlla ci ak wér ak kattan am na ñu defee ñu ngi ci feneen furu fii yàlla comme ci coobareem ci xikmaam ci kattanam.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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن سيدنا الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر والتعطي بنظرة تهتدنا بصبرك kon ba léegi gannaaw bi ñu sant yàlla julli seen tub bi ñu ko baaxoo di waxee toujours sant yàlla bi ñu yàlla boolee si tafsir bu leer bi ànd ak Mawlana Sang Barhama Ndiaye ñu ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér ak képp ku eh, ñu ngi daani la woon si wala taqtulu anfusakum mu nekkoon aaya bu am leeral bu yaatu inna allaha kaana bikum rahima il foofu mooy bu leen def lépp loo xam ne day yóbbee seen alkande lu mën a doon moo xam ne alkande ak àdduna wala mooy zaahir ak baatin ndax yàlla kat ku leen yërëm la ci loolu si leen indi woon xisse bu yaatu boobu comme ni ko sànq yi leeralee gën koo yaatal moom jubbee ko si biibul bi mooy xisab yonent yàlla Insa ak taalibam Yahud ba kon daal yàlla aay na rey sa moo tax mu nekk ci ne may yabal daal yi moo du waanan wa zulman fa sawfa nuslihi naar te loolu nag wa kaana daalika ala llaahi yasiiraa kon daanaka aay bi dañu mottali yàlla nee na may yabal képp ku def na daalika mooy li na tere rey sa bopp ndax loo xam ne nii day yóbbee sa alkande odduwaara ngir jalgati lu yàlla daganal ngir noonoo égal jalgati wasulman ak tooñ mu ngay gën a dëgëral wax ji rek ku ne képp ku loolu fa soow fa xeesu ne musli yi di ko jaaral mooy di ko dugal di ko lakk naaran si safara wa kaana nekk na zaalika loolu jël la dugal la safara mbugal la yasiran dinu yomb yomb yomb alal laay si yàlla kon loolu daal lu tuuti la du yomb la fa yàlla daanaka foofu ay taxawkaay. jërëjëf Seydi Abdou Thiam ñu ngi lay santaat beneen yoon say kaddu leer. te tafsir bii ku ko déglu ku ne xam ne dëgg-dëgg leer na li ma xol léegi rek laa ci waxaat mooy yaa yàlla musal daal ci ragga xol yàlla musal ñëw ci ragga xol xol bu ràggee rek làmmiñ dafay salte ci wax cër dafay salte ci jëf waaye bu xol wéree la muy dana sell ci wax cër yi tamit doy di dund sell kon ñaan yàlla ma ñu loolu ay bii ci loolu rek lay waxaat ci li mu wax nii rek la ay bi di waxaat ndax dafa lu ñu aaye woon mooy ba lekk seen alal seen diggante ay tool naa ko keroog firi naa ko xool lu la ngeen jaayante ci lu yàlla gërëm ci ngeen a jaay jënd ba tey loolu tamit am na saa doon baat wax nañ ci waaye daal teg ca nag ba tey ne daal bu la rey seen bopp nekk nit da rey boppam rey su bopp nag bi ñu xam mooy xaru xaru rey su bopp la jël poson wala nga jël fetal wala nga jël buum kat sa baat daal nga def loo xam ñu ree la am na yu bëri yu rees bopp luy tuy lu yàlla aramal dana nga def ko ñu reyal te tey rees bopp luy bu ngeen doyul wax ne bakkan dafay dugal nit ci musoo fàtte moom kenn du ko dóor bakkan moom kenn du ko moo dafa lay naq yow yaa suba ba xam tëdd ko gis nga booy defee def yu ñaaw sa bakkan moo ko bëggoon xam nga def lu bon lu bon la bëri na maanaam sàcc nga ñaaw la nga def nga daal nekk fu dul noonu la gis nga buñ ne àtte nga teg ay daan yu métti bànneex ba nga amoon keroog moom la ñu jox amoo fii la xaar bàyyi la bitti moom moom kenn ko dóor bànneex moom kenn ko dóor waaye nag ci problème mooy ba nga liggéey bala bala bala nga xam. dëgg la waaye bu doon dóor fekk yaa ngi am bànneex da ko yëg moo tax moom boo mën ngor booy dóor kenn du ko yëg waaye bu dee bu dee bàcc bàcc rek moom mu ngi tax fekk la xam loolu moo tax bànneex kenn du ko dóor bakkan kenn du ko dóor saay saay la dafa ne moo tax yàlla dafa ne mu gën a neneen loo xam ne bëggu góor yooyu ñu ne kéefar yooyu comme ni ko waxee daa ko am mën na doo bakkan bu la nee sa bakkan lañ tegoon démb yàlla subhaana wa taala daal mosu dañ nekk ci ñun yërmande foofu la ñu mën démb ba dawal ba barki démb mooy aaya bu yaatu dégg-dégg wax nañ lu bari benn aaya bi rek lañ sori barki démb boo seetee danaay bi rek ndax li ci leeral moo bëri te jéego te ba léegi mu mel ni rek picc mu dem ba liggéey mu sëpp ginnaaw lan ca am noonu lañ wàcc ay bi démb di des ba ëpp doon fuuf day des rek tey jaamam yi yàlla mu ngi dànkaafu jaamam ñi te ñun ay jaam yàlla kon li ñu yàlla mu ñuy dànkaafu ñun ñëpp. mais ma wan yàppar képp koo xam ne na def na def na égal def na saalika li na ayoon noonu ci gannaaw saalika li na ayoon ci xudduwaana ngir lan ngir jalgati jëni frontière frontière mooy yàlla li nga ne lii la nga bëtt frontière Sénégal Mauritanie am na frontière Sénégal Gambie am na kon génn frontière yàlla am na xam nga yàlla ma ci benn ay affaire sooy dëkk ndaw sama nas. te bëgg yàlla gis nga yàlla am na ay frontière ata bi am na ay frontière loolu moom aar ñoo xam parce que boo xamee frontière asal ak frontière nu boobu frontière am na foo am na frontière. frontière nu boobu da ngay dem ba am frontière ak yi. frontière wilaaya ak xilaafa na bi ak xam baqaay am na frontière frontière yooyu nag yàlla war soo ko jalgatee ko jalgatee jalgati nag war nga jox ko a def fan saalika képp ku def ci yéen onduwaana mooy jalkat yi bay gën bi pour nga ak tooñ te yàlla boo gën a fànteer yaay law soo jalgatee yaay law moom mbaax rek te nekk ko buggal ci dugal waaye moom lépp lu la ay rek ci am bénéfice mooy yàlla amul ci benn bénéfice léeg-léeg nag yàlla am ci bénéfice léeg-léeg mu am nag mu ne képp ko dem loolu moo xam ne bi mu aaye ku ko def ku ne gën a frontière yi pool yàlla mën a fas saw xol lu si bii naa benn xalab jaanam yàlla dugal jaanam mooy du ma dëgal ko safara safara yu ti yaatu na lool nag safar yaatu la dégg naa benn borom xam-xam mu ne nit bu xëyee sangu ba sëttul yéreem gën dem uti dépasse amut mu ngi safar waaye mais nag gàjj na te loolu yenn maanaa loolu hikma la waaye amul nag muy foofu jahanama nag yàlla buy sànni mu ne wa kaana nekk na mu yàlla moomu zalika sànni lay sànni nun safar nga siyal lu yomb la alaajuma yàlla bu lay sañ safara du xëttoo du jaay doole xam nga tey bu lay dugal police boobu bu bu kaso daf lay sonal da ngay xëtt ña ngay xëtt ñu xëtt muy pexe ba dugal la police boobu ngay dugal sama yàlla bu lay safara moom du la laal du la laal moom benn kontar lay bëgg rek lay bës bàyyi dana solo bi mooy transforme bu nekk ci air bi di windeeru ci asamaan si ñu windeelu xiin wi ñëw ñu windoon ak moom mu dëng mel ak taw mu wànd ak moom wàcc suuf si gerte gi sax wànd ak moom may ñëw lekk. allahu akbar. yàlla ñu mbugal ko garaaw garaaw yàlla ñu mbugal garaaw. mala yàlla moom du sonn da ngay bàyyi rek. da ngay bàyyi rek muy dem rek. loolu moo tax yàlla yombal ci moom mbugal aay bi loolu lay wax. parce que bàngoog aayee bàngoog saa yàlla bàngoog maanaam maanaam bi frontière wax ne ko démb wax ne frontière nit nit yu mu nekk nit du dugg safara nit du dugg safara nit nit yàlla jël nit mukk dugg dugg safara waaye nit ku si yombul nit yombul doom bari na ko nekk majeur bi nii di jël avion yi di naaw nekk multi milliardaire ci alal lekk yàpp ko dégg bëccëg am climatiseur takk sol ko ñëpp di am doom lépp di ko jiw doogu ba léegi doogu ni te lu àppal na ko leeral. Cheikh leeral na ko bàyyi leeral na ko doogu ba léegi. yéen yàlla moom salaay salaam xare na ay xare yu bëri te mos sori ji loolu rek kon nag ko yow lay ma yow da yi moom dama xam xam-xam doo ko ne ak yàlla man gaana Hmm? wala ak saraan jaar ma kese mel dini wala islam kulum lay xoona wala ayoonu wala asaanu uwulaayaka yàlla mu ne ñu uwulaayaka ñu mel ni kal anham ñu ngi mel ni bàyyi may te déedéet sax ñu koy bol sa bàyyi wala addalu wala mu xaatu la ñu koy bol sa bàyyi léegi nag nag yu tax sax ñu mën a xeexal amuñ dégg-dégg ci diini dina woo amuñ ci gis-gis bu sell ci ñoom a ay sëluma ko waaw na waaw loolu moo tax ñu ne ñu ne gisal kon wax dëgg moom daf ne ak insan mahdoub moom dañu ko jegeel pour te insan balaa ko dëgëm Cheikh Tidiane insan balaa koo toog gëm set li ñu wax ni na waaye laa yi gën a de gis nga dafay ñëw bi ordonnance jox la teg la beneen feebar tamoon daal di nga nga dem di ñu ordonnance ba ñëw mu téye ordonnance bu xool la xulli ko def def nii digir bi na ci yooyu tamit daaw mais su ma gul mosoo koy guddi bépp mais ne ko lay bëgg a béy bépp daa ndeysaan am lu bàyyee la la bàyyee noonu nag bu fekkee dafay liggéeyam lam dama jox mooy nga wér rek waaw bala ngay wér nag da ngay smith la li ma wax ni nag la mel pikiir la boo xam ne dëgg dëgg yàlla ku ko déglu te naka pikiir bi rek da nga wér Insan ken da ko don te nanguloo Cheikh Tidiane yi ndaxte jëm insa mooy si teel te mu jëm insaan insaan waxamalaha insaan xam yàlla bu waxamalaha asamaan waxamalaha suba wala malaaka déedéet waxamalaha waxamalaha yi ba nañ ba yow kat insaan wax insaan innoo kan zalloman man jawwala aaya bi dafa mooy tooñaa ko mooy réeraa moom insaan waaye ban kii la insaan moom lay wax ki nekk mel ni melokat insaan te yëgul insaan yem bii kii mooy Salman di xool waaye ki nekk insaan xam ni nekk insaan kon Salman mooy at bi saafu bi sabata fakk ay jaxul bi ma si wàlla kooku insaan bi kaamil kon ñu ngi nekk mbaxtu léegi ba may ma sànni képp def nga ni mu yàlla waxoon noonu ak yu mel noonu ak jaayit loo xam ne ni ko dëgg ak commerce boo xam ne dafa am riba am na riba dafa mel ni yokk alal te di wàññi riba parce que da nga leb million ñu koy deux millions day mel ni kon dafay yokk alal da koy wàññi hmm. asaka nag moom da ngay da ngay wàññi waaye da ngay yokk da ngay fukk jël benn jox yàlla ba pare da ngaa wàññi sa da ngay yokk loolu nag mu ngi mel ku ñëw ci àddina bii nga nekk am nga ndey am nga bàyyi am nga sëñ am nga lépp ñoo tax am naa ne nga wiy diggu loolu doo génne asaka riba ngay lekk nga yàlla suñu biir riba riba rek ci ngay lekk sëriñ bi riba lay lekk daal bi riba lay lekk parce que commence bi nga ñuy yëpp lépp. kaay ma lebal léegi nga fay leen ma jox sama bopp nga fayal ma sa aska aska amul njëriñ mais sa sant ji mbaa sa daraja ji sa naka nga war a sant seen i bopp rek boobu riba boobu moom borom yaa borom yëpp safar gi commerce nga mooy nga lee jaay ne donte nag nga kii kon asaka nga am fukk jël nga jox yàlla nit ku nekk am nga fukki baqaam nekk ci waaw am nga li ñu wax xaw ba naasu mooy juróom

képp ku génn ku ko génn nga frontière yaa ngi ci xudduwaan ku ko naka bële nag yaa ci biir ma xam nga mas ko wax daaw génn frontière nu mel nii dafa doon dem kawar ay yële yàgg na boobu boobu maa ngi nekk gën a nekk xale boobu ñu ngi ci fanaa yu métti ñu doon def kon ñu ngi fii ne maa dem kawar oto bi ma dugg nag benn 4 4 la ben weñ bi bu ci auto bi weñ bi weñ weñ yi naaw mais ñu leneen mën naa romb nii dal ci kanam oto bi boo baax dal ci kaw oto bi leneen mën naa war romb moom ngay xool mu dawal ci kaw dal ci kanam di ko neeree na ci oto bi ngay tëb wala leeree na booba seeteen laay gis man ci oto bi ni mu télécteer mel da ron yi mën ci am mo mané ne weñ bii lu ko may muy bandé ko auto bi lu ko may ndax mo li ma naaw tax déedéet parce que moom day naaw dal fee naawaan dal fee jëmale ko ci côté rek li ko may xam nga lan la li nekk li ko may mais bu gën a oto bi oto bi bàyyi donc si parce que TNT boo ci nekkee loolu lay seqal di garanti xam nga ah, ko génnee subhanallah génne ko frontière ba tey loolu frontière ba tey kon frontière yaa ngoo frontière yi mooy nangul góor yàlla foog nga nangul ko soo ko muy dee génne ko frontière alors que bàyyi nga sa bopp <coughs> waaw yaa nga sa bopp tamit ñu ma xam ma daal boo nangoo diineem ji topp leen bàyyi te yaa dëkk bi soo ko génn boo ci leen dara génn nga frontière pour ñu a am yu doon toppeel moo loo may def nga suma tool ku def loolu nekk nag sama rek xalaat maanaam nag yàlla ñoo ëlee safara waaye bu nekk nag safara moom suruug liwig gis nga aay bi képp ku yàlla wax safara nga jëm kalansa bu la def raak yi waxte la mara xam nga lu la ko safara nga jëm aay bi la ci gaaw waxte la man raaq wa sanna alu firaaq wa tuwal saaq bi saaq lu mu déclaré ko yóbbu si lu daf la voilà waaw ويعمل سبعة وسبيلا أن يتبقى أولى لك فأولى أولى من صبر لك yàlla may tënk ci tënk yu métti waaw moo tax sarax tamit xam la waaye ci sama te ruu bi gën ci yaram aay bi la bu ko tiimee xool ko dana kii ak li dem sama rajo bàyyi doon ci ay màndarga bàyyi des doon ci ay màndarga ci kanam gi dañuy. muy soonee yooyu waaye moom jàngal na ko saayir nii donc boo téye waajo rek da xam ne kii daajal la am la waaye jàngal na si gàtt kanam bi rek lay xool su ma nii añam la jëm su ma nii soxla jëm waaye mu koy leeral jàngal ko daa yaakaar ñun nag ñu koy jàngalee mooy ñaari tànk la tànk moom bàyyi ji bu ñu xaw a da ngay laal da ngay laal yaram da ngay am na baaraam mais ru gi fi muy départ rek bon ko wërëm waaw maanaam sampal ba fay nee na ru gi nee na bu gënee fee na ay da ngaa tànn moom foo foo moom bu ngeen ko wax. moo tax booy jàpp sax noonu la booy jàpp sax nu ngay def kon moom leneen dëgg te yàlla balaa bàkku ci ak daal da koy tax ba fii dugg fii fii trop. والقوم أفلا تنظرون fii yàlla ba nga baaxul dañu ko fii dañoo fii nag wóolu la ne tey demul ci dara médecin lu mën a faj suñ bi gën a day day raté waaye lu mën a mën ñaan ba yàlla ba day mel ni dafa saat dara am ku mën fu mu ci am loolu ñu ko préparé te amul nag noo koy mu wér amul noo ngay préparé bu wér lu nga am tawhid tawhid tamit nag wax ñu bëri tawhid tawhid tawhid nga mooy lan mooy xam ñu teel woon mu jógee ba mu mu wàcc tey nga ko tekk sa bopp li te alxuraan nee na wëggal ak yu ma xamati ku nekk dëgg dëgg yàlla nekk ko kan la kon nekk kenn ka bàyyi na waaye ne kenn kuy kenn rek kon bëri na nekk kenn ko yàlla bu nekk kenn nekkal kenn bu yaa nekkee ay nga nekk ay am na ku waxoon démb ci xaaral démb fële ci koo xam yàlla bu li li li teqale koo ak li teqale koo li booloo ak teqale ko yëpp boo ko defee gis ko ci moom waaw nit boo nee nit rek booloo la waaw boo dee ay cër nag teqale ko am yàlla te bon yàlla moom bool waaye boo demee ak ay ay dafa laal ay ji rek yàlla teqale ko moom kon loolu leer na loolu leer na xam nga yàlla moo fi nekk muy dëgg waaye nekkul wax. te nit war na yooyu kon waroon da a gaaw a gis yow benn ndoxu mën di rek kese kese nit ñi ndox kese la moom bu ko see boo ko see sànni mu jël nekk koy jamaa ndox moom rek mooy transport nekk nekk ndox ma tey moo naan tey sama bët bi ndox moom maa sama sama bakkan sama yàqu sama sama kër gi sama oto bi ndox moo moom lépp moom. waaw te yàlla loo xam ne ah wala may. yow may bakkat ndax moom mooy bakkat ñu sant yàlla moom la xaaral laay moom. gis nga tubaab boo la bëggee bëggal tubaab am na tay tay yu am dara bu la bëggee bëggal benn kii lay jël rek benn pigure def ci ay def ci ay fasal yu bokk soos yu bokk pigure nga ko bala ko da ngay pigure bala bala bala nga def ngay dem nag di daw di kële di feewal di feewal di feewal di ba dee dama bu la pigure bala bala alors moo tax léegi léeg nit ku dee fekk dañ ko rey fekk dañ ko rey moo tax sëriñ bu feebaree war a def nanga dem hôpital sëriñ du nopp dafa ngam nag su su ku ku ku ku ku ndaw fu nekk nga fa ndaw siiw siiw rek nag hôpital du fa nekk fa ñëw hmm. ma nga ci def seen bolo bañ lool wala ku médecin bu xam ku la ak ñuy jënd ko boo yoree moyen sans problème te daal wér parce que poson lay jóor rek la balaa balaa poson ñuy faj rek ñuy faj rek ba dañoo gën a ñu dee la vraiment fekk malade ñoo la rek am na jamono bàyyi daf lay bàyyi dana la rey nii waaw day moo tax mbañe yàgg la gëm bàyyi des rek laa war a def ak la gaay rek daanaka Abdoulaye bu nekk lay rey waaye borom jamono li ko faral neex moom bu liggéey liggéey day métti jëndal jëndal bu ñëw day neex day neex boo ko ñu doon rey dañu mujj jógee fa ñeneen ñëw ñu dund ñu dund jógee ko daanaka ñu pat dëgg rek day bàyyi day mujj jëlaat terrain moom médecin yi nekk daal yoo baax ah lépp nekk daal yoo baax si moom bàyyi ko ci Afrique hôpital bi sax moom lañ ko tuddee. waaw waaw xam nga sax lañ ko tuddee hôpital bi yëpp doon ay gars yi. tey mu bàyyi ko tuddee. xoolal ma tuuti fu ne ak ndik ni muy toog paa rek. ndeysaan noonu la moo tax bu aayee dama sonn jigéen sa bu aayee sonn jigéen bu aayee day sonn day tële yeew day def marché day gàtt. day def di di përkala dañuy ñu toog neex wala neexul bu amee xorom mu tiit bu sow kàddu sa bopp mu tiit ah na nga am bu ko ñuy lekkee tax kii gis naa rees maa ngi rees maa am bu ñu ko dara day tiit bopp bopp bopp yu bari. jigéen pire day tiit bopp yu bari. mais dafa lekk day day lekk bu suuf sax mu tiit. musu bana sabu debi tan mutu bana hey wala sala sa moy ni ma ma fa rek ci eh, ko la la jam ah mo tam bi ben do bu lek ba jour ne neexo waaw ande koy mo eh du dara mo rek mu joy di nga ngi togo tan on tan rek mu ko di joy waaw ndeysaan am ko ko baax jigéen da bëri yéen ma jigéen da bëri yéen fu ko plus sax ñu ma waaw noonu la jigéen boobu nag mooy melaw suuf xam nga suuf wala nga ne jàmm yi nga ne jàmm suuf nga ah, mën a am foo mën a fo fo naa ko dafa baax suuf nga mar bu nga naan ndox ba ne gasal gas ma nga soo di man dagasal sëbi su suba boon na nga dagg sëbi sëbi bi moom i gën mais daara désolé nga am sant sa kër suñu jël sa kër bale ko ba mu set mooy nag foofu war a def am war da ko sama das das ma suuna suuna ba dee ba dee bu ko des ma dem am li ko di ko am mu xool mu ne gisoo mën a sopp naa ko muy lu baax da ma tabax tabax moom fekk su ma koo nga tabax moom war daraw su moom ak boo koy seet yàlla seet yàlla boobu loo ko def ci lu bon mosu ko voilà maa wala yow rek yow yow rek dana laaj gannaaw man noosu dama noosu day saaga Cheikh Tidiane yi te man njëriñ li jox moo ko jox bi ne moo la ko jox bi Cheikh dana ko jox yàlla Cheikh yàlla laa wax yàlla de Cheikh yi moo ñoo li ngay lekk ndax da ngeen di yëpp yëpp sa dama oto bi ngay dugal ak da ngay naawee lépp seet yow ñu daal di lay lay ñu ne da ngeen sol nii mu dox ngay sangoo lépp lu mën a pampe di walal seet kaw na xam datul loolu hmm? wala kaw na xam loolu xam moo lay xam xam lu ngay li may maye gi waaye soo ko nangulee bu may jëm may yee dootaa jël nekk lu la nekk lu wér soo ko wér nag mu xañ la ko mu def la leneen lu wér. day xañ la te loolu noonu lay xañaat la waaye nag bu la koy lekk nangam nag dana ko jox. kon ñu ngi sant yàlla baax ay fu mu la yem commentaire man daa bëri waaye nag ay man dëgg-dëgg yow rek la. asalaamaaleykum. leer na jërëjëf. Euh, ba léegi ñuy continuer yàlla ne in taj in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu loolu nukaffir ankum sayyi'aatikum aaya la boo xam ne naa bokk na si aaya yi gën a dal xel yàlla nee na in tajtanibu ndem teet ngeen ndem moytu ngeen kabaa'ira ma way màggi yi nga xam ne tunhawna des na tere anu si moom maanaam lépp bàkkaar yi ngeen nga xam ne tere na leen ko bu ngeen ko mooy ko rek yu mel ni rey xëy na waa ji doon nga ko ba jël paaka bi bëgg a rey sa xel daj naa ragal yàlla nañ nga bàyyi rey dóor yaa ngi yooyu comme demoon nga ba bëgg a rey ba ko yàlla ak njaaw xëy dox ba bëgg a jaaroo sa xel daj ragal yàlla da yàlla nga ragal la mu bàyyi dégg nga yooyu yooyu itam comme nga yàllaale nga jaaru ga rek yeneen yi si topp ne la ko baal da nga doon sàcc ak yooyu noonu. moo tax mu ne bu ngeen teetee way màgg gi yi xam ne tere ne ba nu kafir danañu kaabaaraam bu si yéen say aat bu seen way ñaaw it mooy ñaawteef yi ndaw yi kon inna laa yaghfiru sagaayira bi ijtinaabil yi si sababu teetu way màgg gi bàkkaar yi biñ see wax nu daxilkum dañ leen tàbbal leen dugal ma daxalan ak dugguwaay tàbbiwaay kariman bu tedd damay àjjana dañ leen dugal àjjana kon kabaayir yooyu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lim na ko si hadis si juróom-ñaar am na ñu ne sax dana dem ba juróom-ñaar téeméer waaye yonent bi moom nee na ijtanibu da ngeen moytunu ko al mubiqaat as saba way alag yi yéen juróom-ñaar maanaam bàkkaar yi dañuy alag nit أشرك بالله وقال يا الله بأن عقوق الوالدين بلية نيار ميجو نيار وقتل النفس رأي بكر وأكل ربا أدلك ربا وأكل مال اليتيم أدلك على الجرم وخذ الحرة المحصنة ما رمنا لي قص بجمع ديال القور وهم رصيه والفرار النزام في أكدو قرح دو قرح دو قرح نيوه دي قرح دي خيخ في طول إسلام dem ba xam ne ñu ngi wala dem ngay daw di làq lu mel ni ab saarin saarin loolu dañ koy xaraamal ci luy maa ngi bàkkaar yi moom juróom-ñaar yaa euh, ngi moom yéen ci mag gi bàkkaar yi nga xam ne moom dañ leen tere yàlla da leen baaxalaale yu ndaw ya comme ni ko misaalee borom xam-xam yëpp boo demoon bopp nga njaalo dara desulul njaalo yeneen ya nga defoon yëpp nga ragal njaalo gi yàlla mu nga la baaxalaale yeneen ya wala dama koy baal comme fi leen di dugal muy àjjana bàyyi teg na beneen mu ne yàlla yàggulu dunoo inna allaha tabaraka wa taala yàggulu dunoo dana baale sa bàkkaar yi waaye sax léeg-léeg mooy yu bàtt yu sayyi'aat xasanaat moom moo gën a garaawati jël ñaaw tefee ci boppam wëlbati ko def ko sax mooy ay way rafet ko loolu nag mbaamu yàlla ak kàttanam lépp kañ la ci. suñu taal moom loo xam ne nee na. مقصبة الشفاعة sama ramu إذا دخلت شفاعتي di الكبائر من أمتي nee sama ramu man yonent Yàlla Muhammad maa ngi sama xeet bi ñi nga xam ne ñoom def kon ramu yonent Yàlla Muhammad lu muy denc la pour lan pour ñan ñi nga xam ne def bi ay bu ñëw rek neex ndax dañuy firiwante ndax dañuy firante ba léegi fee dafa doon soofum si naar la doon fii nag moom mooy bii ma daqal kariman te ndaa te mu tëddaanaan yu ñu leen buur ne in tëj tani bu bu ngeen téegee teeg bu ngeen bàyyee kabaira bàkkaar yu ngand yi bàkkaar yi nga xam ne maatun xaw na da leen koo aayoon xamul te bàkkaar du ngeen def su defee nu kafir ankum yàlla na far ci yéen si atikum seen ñawte ni suñu bayee bàkkaar yu mag yi yàlla dana defaral lépp da koy ndaw te du jeem wala lu xëy na comme da leen dugal mu dagaan du booy xëy bu te mooy du aljana. xanaa ngeen bi ci gën mooy aljana. aljana aarif ni bilaay nag moom du aljana. teraanga yëpp bi ci gën mooy xam yàlla te dëgg mooy loolu mooy dëgg dëgg àddina àddina bu nu yàlla dafay jeex xam yàlla bu la may bu la xam yàlla moom day jël xëy na bu ñu jamono xam yàlla rek mu daan xal dina seer léegi nag bàkkaar yu mag yi moom la mbokk bi leen léegi yu saw yu teel ma sax dangay na bi ci dëkk muy sirk bi laa man boobu laa bëggoon jël man boobu laa bëggoon sax jël borom man boobu lay bàkkaar mag mooy bokkal yàlla. sëriñ bi laay mooy bokkal te yi wax it nag bokkal yàlla kese lay wax li mu wax fii yëpp bokkal yàlla kese kii bokkal la nekk rek ak si waay tuur kon jaam ne fi yàlla ne fi rek bu gën mag la ak koo may doon ak lu mën a jur ak lu la mën a xooy ak loo mën a woo yow ndéem du sa yàlla xamoo yaa ngi bokkal yàlla gën a kabaar bi gën a bon mooy boobu parce que bu jur ko sangul moo tax bu jur ko sangul te day xas bi sën kon bàkkaaru mag bi gën mag bi ci ak sa sa ndax gis naa ku juddu na yaayam man yaay man man man kan moo moom na nga yow buur bee la moom waaw mu ne ko man maa la moom mu ne ko yow yow yow yaay yaay yow yow kan moo la moom yow mu ne ko man sa baay sa baay moo moom mu ne ko sa baay moom kooku moom mu ne bët dëkk moom mënu ko bëri moo ko moom mu yow noppi yow la ñuy seet xam nga kooku dégg na waajuram xam nga tax li waajuram gëmoon la la huit nee na li ngeen gëm du ya man kan moo moom wax boobu mu mu ngay mu ngay gis yaay ji nag man maa moom nag yow ku la moom yow sa bàyyi noonu sama bàyyi noonu ku ko moom buur bi buur bi moom ku ko moom mu ndeer moom yow li nga ne ëppal rek kooku mooy suna Ibrahima abu anbiya ak waajur ak yeneen kese yu gën a métti sax ci waajur jaar ca ñoom yeneen hmm. am na nag di wax ne ah kii bi yaayam alors ah, que du baayam Mongoloae, soo ko waxee pare doo ñu bàyyi dama doo métti dootu ko bàyyi mbaa doo ko rek bàyyi ñi ko ñi ma gis ñu indi ne du bàyyi tiir yi am na ci kenn koy sànnal kii may bàyyi waaye te fa moom bàyyi mooy du kii moom kii la ko war a waaye du kii rek te doo kàll day métti. yàlla nag mooy baax. waaw te yàlla moom wóor wax. gars gars waxin wi moo tax ñu ne du du moom. waaw waxin wi la waaw xam nga. waaw xamul ndax. xamul ndax yàlla bu ko defee wóor fekk na ko xaaral ma ne benn point xam nga yàlla day waree noonu nit ñi nit ñi alxuraan bu jëlee ayib rek da ngay jël ayib bëri firi ko ayib yi. ñu doon lu amutoon doom. kanaan lu ngay wax lay sax maanaam mooy lan bu ko coow. te kooku jub kon boo doon nit da nga naan kon juru ko bu dee xel ngeen ko tax da nga naan juru ko. waaw. waaw ah, bu doon jàng rek nga jàng da nga kon juru ko boo juru yaa doxul. gis nga jàngkat yi sang yi. waaw. Ah. fay yii ñoom dañ koy gis daa muñ ciy ah. dañuy wax moom bokkul ci sa sa ñoñ yi war a mucc. ñoom ñoo ci yokk loolu ñu war ñoo ko yokk. moo tax ñoom waaw waaye ñun li ñu gis mooy saa rek comme kii du bàyyam rek la wax ci aaya bi yëpp da nga gisee nga comme du bàyyam dafa dafa wax kay muy bàyyam te lu muy def daf na ko naa foo bàyyi su bind mu ne bàyyi su ren naa fu mu bind moom bàyyi doomu nit ku baax ah des di ko nekk nit baax am na am saali la saali woon na de i aslu way laa am na am saali bi na saali woon waaw ah, len waar kon xam nga doomu nit ku baax la mu ne waaw baax na waaye ne fekk nekk nekk nit ku baax yu soo ko nekkul doo doomu nit ku baax de pourtant samay baax la moom kon loolu mu gën a garaw sax ah bàyyi nañ sukkandoon ci ay bële ñu tuddoo xanaa sukkandoo bi waaw ah, kon mbir yi loolu la dégg léegi ni bokk a bàyyi nag mooy tegee bàkkaar yu mag yii bi ci jiitu mooy bokkal yàlla te bokkal yàlla ku ci bëgg a mucc sikkar yu bëri tax nga mucc istigfaar yu bëri tax nga mucc. julli yi faral julli guddee ba ca kër mu ne yooyu taxul nga mucc dem naa ko junne yoon taxul ca taxul ca mucc alal taxul ca mucc ndax lay mucc ci wàllu nekk loolu moom loolu moom la jugul lay mucc loolu moom la jugul ma ma kon li def yëpp taxul ca mucc taxul dañ ci bokk a yàq xam nga bokk a yàq lu sukkanti kan peel gërëm ñaari waxtu soxla leen ci moom ñaari waxtu rek mu defar ko ay imaam bàyyi jël tur yàlla yëpp di sëkk yàlla yëpp nag parce que la ñëwal ko sëkk chaque jour ngay faral di sëkk fu nekk mu ngay di jàpp fokk rek fokk rek daa foo jaar yàlla wax wax dëgg bu dëggal sëriñ fokk wax ñëpp daal di sëñ wax tax bi saabikele sana man boobu ma jukku loolu fu ko day dugg damu tam loolu mooy dëgg moo tax Sénégal gi ñu nekk tey ñun nii Sénégal gii ñu ne pour nga dañ ci bokkaale xam nga ko bàyyi sanga man la nekk ci biir mbubb waaw ma ñëwoon sa xel tuuti rek seen saa ko démb ak bàyyi gas bàyyi oot loxo te ñu koy dóor démb rek sëriñ say fon bàyyi ñu ko wax bàyyi oot loxo ñëpp koy di te li nga am hmm? kon nag zaahir baax na ci yii ñu xam man nga leen dëggee dugg safara man nga leen dëggee dugg àddina fekk dënga woo leen da yaakaar leen dëngee te dënga woo leen misaal bàyyi su war nga xam yàlla am nga ndey am nga bàyyi ne kenn du war a bay see bay topp sëriñ am ñu ko wax ñëpp suñu loolu wax ndey may moo gën a fóor sëriñ ñoom loolu yàlla wax ne ci alquran bi ma yàlla may génnee يخرجون من إلى الذين كفروا dañu ne nuur dina zulma lu li am yi dox tàqul oo tàqul yow lu baax sa waay jur yi fu la fu la jëlee ci yàlla la jëlee daal nekk leer nga nekk leer nga nekk leer comme ca leer li bii di lu dëkk wala ak dafa nga kap abaat na kap seer bi yàlla réew waajur yi ñoo ñooy jëlaat ëllëg ci réew yi bu la dina dina mar waaw loo koy seetaan ko keneen koo dañ fekk ci biir na moom sëriñ tarbiya na la ci yàlla nga nekkal leer ñaan ñi ko jëkkal kon da ngeen waajur am na maanaam waajur wi ngay dëngee dugal safara yow sa ruux gi ki moom ak yaram bi ku ko moom yaay waajur yii doon dëgg safara bi benn waajur bi nag mu nga juddoo bi ngi te mooy waajur ñëpp la doon dëgg dugal safara waaw ah, ñaari waajur yaa ngi ko waa nag ñoom ñaar ku cay ku cay jigéen waaw soxna am ku ne am ku jigéen te ñoom bu ñu amee aussi waxee doom loolu yëpp mu ngi fi ñaari waajur yooyu ku leen dëngee safara nga jëm ñaari waajur yii nag saa yéen yii moom dëng leen taxul dugg safara nga ne pourquoi ma indi ayat wax na yàlla yàlla ma ne wa in jaadaka xalaat bi an sa bii ilmun fàttuma sa ndey ak sa baay bu ñu la bëggee bokkal la yàlla baal ndey baal bay demal ci yàlla waaye nag mu teg waaye nag war seen nag si dina morof rek morof si dunia morof li nga xam ne si dunia morof amul solo dunia malhunu àddina ko rëbb kon ànd ñoom si nekk ci àddina rek la no waaye nag ñu ngi yàlla kon nag su may soo ju kanaana mun a am la kële ba tab bi tab bi la ba tànnaa bëggee kon sëñ baa moom waaw. dana hmm. hmm. hmm. xaaral fay waaw waaw waaw waaw bu tudd kër ga rek bu doon déglu sa wàllu mooy la wax rek. loolu am na ci benn cas soo magasin soo bëggee ne daal dina jëlaat temps tuuti danañu xaw a commencé waaye ci la bokk. waa am benn boy bu liggéey sama fële papaam ñëw ak sama ci magasin bi na ma sama doom yaay bi nekk taale raay ba léegi julli jullitul te nee na ay sëriñ la dama koy waxal ne daal sama jaay nga ko doon bàyyi kon bàyyi bu ko fi bu ko tooñ jaay yow bàyyi yow yow nga yow yow jàpp naa la kat yow dama koo yow nga nekk sëriñ waaye bàyyi bu nekk fi bu tooñ bàyyi mu ne waaw ma ne ko waaw mu ne waaw kon ak lan ñaareel bi dara teg ci yàlla dafa wax ne saaju si waxee yow na ngeen tontu dama fa waxee moo fare te dañ ko daan um rek julli waxtu julli juróom te dañ may dëgg ci côté boobu ma naa mu naa ma dégg ñoo benn baat boo xam mu métti ma lool parce ban baat bu wax jaay

Seydi Aboubacar Seydina Cheikh Tidiane Cheikh al Salam wala Cheikh Cheikh Cheikh toujours naan Cheikh Cheikh teel a dugg. yow yaa Seydina Cheikh Seydi Aracine Seydi yow ñoo ñëw ay Seydi mu taw yàgg mooy ah bii moom solo ma ko woon. naa ko doxal waaw doxamoon solo ma ko parce que danaa mer comme mer dootu bokk. beneen bi mooy sa doom nga def du julli ba mu jógee ci man ba léegi du julli naa ko ne ko kaay. Arba da nga war a sañ na Ibrahima Ba lu ma demee sa liggéey xam naa ko ma ko ma waaw par ma ko koy sëy fii subaar fii la ko fekk maamu ñu koy julli ci bànq sëy takkusaan koy fekk maamu ñu koy koy fekk ñooy julli ba la koy fekk yow benn xajam dong nga toog est-ce que la woo sax moom ma ne ko benn heure nga am ci moom mooy fajar. mu ne ah fajar sax su ma ko yee def ci biir ndax moom moom ndax boo fekk mu toog nag di yóbbu est-ce que yóbbu dafa def moom dafa fekk mu yóbbu kay est-ce que yóbbu bàkkam la ndeysaan

wax farata la boo xam ne farata bu yàlla gërëm buy ne waaw wala incarné na dina oote te incarné dina projet li wuy di ca benn wax di benn wax benn benn benn projet boo waaw buñ ko yàq seen buñ ko wax ngeen oote seen soo soo problème du faram loolu loolu du farata la fi yàlla ñun dara xam naa ko ci laa nekk xam naa ay sartan ci laa nekk bu baax incha allah rabbi te ñaari bàkkaar yi wax naa ko léegi bokkal yàlla bi ci bokk ak dëggee waajur waajur am ngeen ko wax ko waajuru maana waajuru madd ah? ak rey bakkan ba xëy na xàq na rey bakkan doomu tey moom boobu laa doon xaar ah, rey bakkan waaye ba xëy na xàq yàlla ma ne soxtu lu kon dagal boo soxtu lu kon dagalul ñaari yëpp boobu na xam bii nag sa tànk de soxnaam fi nekkul dëgg foxtu parce que yàlla na xam nga xaw futuura ba taxaw futur boobu nag foxtu waa taxaw bi nag waa taxaw kon boobu yow man yàgg na ko sëriñ fii ñëpp xam ne ko yaakaar mën nañu tàggal ak lekk riba wax naa ko léegi moom wax naa ko léegi riba saa bi mooy da jaay dara. wala mu soxla dara ñëw taylal la ko wala mu yàqam jox la dal lebal la ko mu jox la 1 million nga fay ko 1 million 500 ba 2 millions riba boobu même bu la 1 million 50 mille ku lekk lu rek safara bi jot te buy commerce nag moom soo jëndee 500 jaayee ko 1 million mu dara waaye am na fi mu aaralee tamit nag mooy soo ko mës ko sëbi. waaw ah, terewul day fay terewul day tax day tax di fay def sa def sa def sa def ba xool ci benn morceau bi bu kale ko muy tax nga mën a tax ko door a fay nga fexe ba jaay ko ko ko. boo xam ne ñoom nga jaay dara moo tax. léegi-léegi nag ki lay da nga bëgg engrais xaalis xam nga gis nga commencé léegi day muus léegi am ku ñëw bu ko tere te li ñu bëgg ne xam nga am ay am na gën suuf te mu kaw nga wax ko ba léegi moom moom moo wax la kii nga fekk ba jaay ko ñu bëgg ndax man am na ay sax yoo xam nga bu demee balaa ñëw rek nga indi lu mel ni moom gën suuf te taxul ko xam. waxoon naa problème. yow bii bii moo gën xam nga ak xam nga àgg sa li bon nag moom mosul moom waaw waaw rek am léeg-léeg gis ku mos mosal télé bi mu jël ko yóbbu ko ba si gañ soor ñu ne man dégg dama dem bu la tàkkul fekk yow ak bu la xam moo koy xaw ma ne mbootaay ba ba koy yàq moom ko mu dem daal daal ko ah loolu léegi moom kon ba tey ba yàq parce daal daal ko te xam ne bu may taxalu ba kon day am télé télé yi màcc xam ndax man dana wax ne balaa bakkaan da boo koy ba mu fekk léegi nag nag ceeb ñoo nekk saxoon bu baax mu ko mu taal ko mu jàppoon bu wéy xaj bu wéy boo taal ko mu man boo nee pàccoon naa da nga day am ci jaay yi moo tax jaay yombul kon rey bakkan waaye bi xëy pàcc nag moom moo aram ak lekk riba riba yi daa nekk bi mooy sëriñ bi taalee mooy taalee bi seen ak ñu ngi lu nekk mooy commerce commerce mooy sa diggante commerce yenn suñu yu bàyyi xel yu bàyyi bayoon na war a am ba day nga laqoo mboolem leer yàlla yi nga amal sa bopp bu sell bu baax may tamit may ku set nit laa te da ko ba defar ma ñëw jaayante yooyu tamit nga sukki sama mbubb yi wax ma ñu sa sa ko sama mbubb leer yi contrat baaxul. te mës mës mës mësal na am na ci am yàlla am yàlla yëpp mën mësal. am li ngay windi fekk ñu ngi mën mësal. xam nga soo ne maa yàlla ma ne maa yàlla pare nga bëgg bëgg nga bëgg xaaral ma sama bos. dëggal sa bos foo koy nekk. foo koy nekk. ba pare saaga ma ci bool ci. tey day saaga. donc maa tooñ. kon ñett yoon toog ku ko nag xamuloo ko mosu koo gis mosu leen toog jotaay mosu wax mu wax boo ko leen soxal boo ko leen dëkk boo ko leen na boo ko leen dara dara dara mu nekk mu saaga ah dëkk bi dafa amul loo te ñemee nag loolu la te ñemee saaga yi loolu nag man nekk la saaga te yow nag nga nekk yaa yàlla xanaa nag man man naa yàlla ndaw tool bi baax na rek kon maa ngi woon ci riba riba riba wu pare nee na sëriñ bu fekkee moom dafa war askanam lii dégg yow jaayante moom mu wax ay askanam nga ne ko bay dig aju rek safara maanaam safara maa ko doo fu dëggoo yaa dugg aju na bul def lii bul julli bul wóor nanga nangam riba rek ngay moom riba kat la te yow dafa day loolu mooy riba riba mooy yi ngi jaay mooy yaa ngi ko jaay sa bopp yow ba pare moom mu fay la yow benn bon boo ko jox mooy sa bopp sa bon mi boo ko jox mu fay nag fukk yu bon dental mu sax dental mu sax bu baaxul benn bi mooy lekkalu jëriñ gis nga daanaka mel na la léegi benn tourné tourné rek di wax waaw jëriñ jëriñ lekkalu jëriñ bëri zahir bi mooy ku amul côté bàyyi ko xam ne bàyyam dee na bàyyi ko àll bi fay bi muy dee mu ne xale am ñu ko ko yaral am ñu ko yaral yar doon na doon na kër ya doon na nag ya ak fas ya ak xale ak bëyee yu mel noonu wala oto ya doon na ko téye ko nag na nekk koy dencal donc seet teg seen tànk nag jaay kër ya jaay alal jaay nay jaay su naajee doo am dara bu baax ram na dana nekk alu jëri benn ngi benn ngi ci nekk alu jëri benn ngi benn jëf buy jël ko ay liggéey rek nit koo xam ne sax amul dara yaa koy liggéeyloo jëri naa yi daal ci benn maam amoon doole nga légal ko légal ko fukki yoon yaa war koo fekk alalam nag ko dem mu dem police nga fekk ko ëpp ko doole fay ookaay wala yu mel ba jox dëgg moom mu perte jërëm la ci yow la waaw ah, jërëm la nga lekk alalam ka am lépp loo mën a naxee ni daal nax ko ne ba lekk alal ci lu bëri xew bi la ci yëpp jërëm la waaye jëriñ bi gën a soor nag jëriñ yi mooy taal bi ñëw ci encore moom tamit jëriñ la kenn moo ko réer bàyyi ma dee mu réer ko ndeysaan bàyyi ma alal ju bëri alal ju bëri la ko bàyyi ma bàyyi mboolem lu asal am bàyyi bàyyi bàyyi ko bàyyi bàyyi moom yëpp bàyyi bàyyi ko ndeysaan itam nga ne yaa ngi koy dencal kat yaay sëriñ bi yaay sëriñ bi yow yaay sëriñ bi léegi yaa wutulaal ci moom te xonk yàlla nekk mu ne danaa mos a wax nag xonk ba danaa wax kay waaye da nga ñàkkam tii ak lu jot jot sama xaamam ma xamee kay mu ngi si ku góob am ko parce que vraiment béy bi wuu dinaa la am doo du wuu. ah tool yi mu gën dem. xaqaay ba yooyu ngay dégg ci gars am naa koo gàtt rek xaqaay yi tey dara. man am naa ñu ma yor. man xam naa. xawati xawut laawati la xawut la ci lii mooy dëgg-dëgg lekk àllu jëriñ. li moom dafa set. yëpp àllu jëriñ tey ba ak bu sa bopp. parce nga xas ko sat nga tumal ko jàll loolu mu ngi mel ni gën a feeral bu nekk la bu set fett yàlla moo tax nga xamante ne day fen allah ñu war nekkul dëgg bàyyi amul kalifa bu kalifa bàyyi xas na bor xas na bor limu moo xam ne yow moom di waxas noonu soo ñëwoon ci xadaraam danga fekk ñu la gën fuuf bu dee xam ñoo ëpp xam-xam ñoo ëpp juddu ëpp gën a sell te ay mbokk yu bëri da ko topp dañuy ñu kenn ko ci moom moom la gën laxas ko nag ci bi taalib yi taalib bu xam xaqaay xam piyaar ba mu ba mu leer ci moom yow muy su béykat bi kas kii di ko kas na ko di ko toog du dara na nga xam ne di ko ba mu rëy ba rëy du for nag yow foog baax nga bokk yow moom di ko bokk la xamoo leen fay ban fan bu rëy nga bokk fan bu ne xamaral la xam nga bu ne moyal mooy ñay ñax bu rëy mooy ñay wéy mooy nay man du ma nay man bu ma dëgg nay waaw yàq bu rëy mën naa xam xaqaa yàq bu yàq bu rëy wala le daal boo laay daal bu rëy lu ko dóoree ba daal mooy laa ilaha illallah yàq bu rëy Muhammad rasulullah yii yàq bu rëy laa ilaha illallah nga dee yàq bu rëy la moo sax nga dund fekk nga def ko yëpp ko fa nekkat bu rëy ay yàq bu rëy la ko dund ñëpp la ko yàggal loolu yaa ngi nii d'accord kon ñu sant yàlla baax ak ban jàmm daw joxe suñu nag daw jotaay daw jotaay nag moom ma ne ko fii di nit yàlla bii bu tëj yàlla ci at bu ñuy at day tubaaraay day moo jaamu yàlla ci suuf. dëgg la de dëgg la de si gawul. saa yu xëy moom ngeen ne kot moo jaww ji. dëgg la de. kot. voilà du ma ne ko kot dëgg la. dëgg la de. mu commencé na oote ne ci lii gars yi oote bu ñu oote ko it. gars yi dafa nangul ñi di bañ ñi di nangul ñi di bañ ñi di nangul ñi ñi ñi di bañ. léegi am bi ñoom léegi ñu xupp mu ndaw a. daaw jaxale. parce que mooy ko yow sama yaay bi ñuy wax ah lan la lay wax. ñuy wax. loolu ñoo ko formé rek. ah ay ak booy wësi ko. da ko tudd. du soog benn at ngay tudd yow daanaka ruus la. loolu ay na maa قالوا لين مين لين لين حقا يا اخي ما عينه ما عارف حقا يا اخي كل وقت ما عينه ما عارف الله اكبر دير دير قولي وزمك وزم ديرك حقا يا اخي انا ما عينه ما عارف طيب, طيب، الاسقف ديرك بيوصل بلا نقول بلا باين هو اسقط الغدود في الحقائق الحقائق هي غادي نفهمي باين الحقائق خلاص وبالحقائق وبالمعارف والسر السر السر والعمر دمكم دمكم والدراية دمكم الشوك والدراية مي باي بوخ من باي بوخ بالصومي وهدي لا أسلا فل بفضل يوم يوم دبل آه كل حقائق الله ba tey bàyyi ko mën a xeex laakin su dul lay lu sunu alek bi ay daal wa attaque attaque lay nekk kon ñu sant yàlla baal ci yëpp rek day nit ñi gis nga dina maa yàlla moo gën a am problème ku boobu te tarbi na bana maa moo gën a am problème ku maa yàlla loolu la loolu la loolu la bëgg a xam dans su bëri nga nekk ki tarbiya ba daan naa yàlla mu war a dansi ci tëndeegul bugg daan la parce que da nga oote xool ak yàlla si bopp. wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi ah parce que xam nga moo ne képp ku ootoo dama yàlla parce que mu yées ah waaye dama yées te day yées gi mooy lan bi nga naan ma yàlla yow bu la laajee sa yàlla gi ana awalam ba ana aaxiram ba mu bàcc na ko doo dem te ba luñ ko amul safara bi yaa yaa majzuub in lam tasluki fa anta abtarul bàyyi waay te loo xam ne amul yëpp amoo yàlla mais ba mu yóntal Muhammad amagoo seetaan amagoo yóntu boo amee seetaan amagoo bàyyi amagoo amoo bàyyi amagoo seetaan boo am naa bàyyi te wii di bii yàlla bii teg ci gannaaw bàyyi te ka fa toog mooy Sëñ Njaay bii di maa ko wax taw taw kanam yi gis nga juróom yi ndëgël yëpp maa ngi am bu dugg si leen gaa fàttal tamit bi na bàyyi la ba teg bàyyi mooy jàngale ci waxam mooy sëriñ boo xam ne def laa bëgg a dimbali te war a dimbandiku kon ñaari mbir kon dañuy déggee am na sëriñ boo xam ne ñoom dañuy ko seen taalibe bi mais dimbali wuñ leen sëriñ bi dimbali la bàyyi wax ne kooku ne dafay bëri daal di bëgg a amee tàkk ci yàlla waaye doyut yow ay tontu yàlla mooy bàyyi nga ne moom doyut bàyyi mooy jeex yàlla doyut. ak lu mu foor foor foor foor bàyyi ma doy bi parce que mel yàlla yàlla mooy man mel yàlla wu bi ay xaaxaay yi ñëw ci kanam wala wala wala boog ay bii ci kan ay ma mooy ay bii la ay maqaama ci kan nga ñëw la daxam ko yonent bi te képp xam xamoo ko yonent yàlla moom si ci jamono la nekk di ko yàlla daal parce que yàlla mi ngi jiitaroon loolu nekkutul yàlla. xam yàlla bi ngeen bi ngeen di kan la yow tuuti wit bi te mooy yàlla bi. inna allaha wa malaikatahu yow yëpp yëpp ko diini yàlla ak malaaka wàcce ñu bépp tur yàlla yàlla amuñu loolu tur sax doo tur lay dox. bàyyi su biir borom fii fi mu nekk mooy tax na di la lu wahidu mawlaana bi ahmad moominu wa bi rusli wal amlaak wa kii ak muhaymin daaw loolu la ko te woy bi sax séeréer woy bi séeréer lu woy Morana bi Amada woy bi wal woy bi lan la woy bi arab la waaye mooy la ci moom malaaka ak allan ak yonent yi ci moom. kan la waaw Moussa Amadou am laaj kooku mooy mun a zayat da ngay xam kenn tuwaatu baqaay kooku mooy li ma leen ko war a def bi Amady mooy la te loolu sax mooy la rusul yi mooy masaahir yàlla yi ci mën leen wér kon am naa ko may xàqaat yàlla ci mën wér ko boo kii al moom émi mooy itam kon so alors ajaban ma taw ma taw bi dof du xam lii ku saay saay ku ñaaw lamee du xam lii bandi bandi wuyu rigo du xam lii taalibe yi dem moo tax taalibe yi dem taalibe moo ko leen daal di ay jaam yàlla lañu yàlla nag ma ne moom rek suñu gisee dem kon ñu ngi sant yàlla bu baax am naa ci sax ay tegtal yu bari ci loolu te loolu du wax ci mbooloo bi ci xeexoo bii ndax ay kilifa wàllu na ci ak bu rafet lépp lépp lépp en tout cas ñun tooñu te yàlla xam ne yàlla suñu fan laaj la ñu leen ko yëngu parce que xamuñ ko. ko muus ñoo taw ak moom musul am. gisuñu ko déedéet surtout ñu moom dara déedéet. ok moom moo def defam du juddu jumul du. te la mu wax it du ko paase. nee na ko fukki dëgg nee yàlla. boo ko saxee ak yàlla nga doo yegg leneen. sañ nañ ma ne maa maa yàlla mu ndeyfeel. waaw moom bokk ci. waaw waaw waaw bu ko jege sax la ngay def. daal ko lu seer woon nga moom nga lu ko baal baal baal baal mu yàlla dëkk bi ca kon ni kon ittali woon nga bàyyi rek day nekk ba léegi bàkkaar yi dégg ngeen bàkkaar yi gars yi juróom-ñaar la ko yéen soog indee moom yëpp rafet na juróom-ñaar yooyu nag nga xam ne moom la ko yéen soog indee boo jëlee asamaan boo ji bi bu yàlla jigéen li yëpp pour bàyyi foofu rek mu dégg soo ko tafsir nii par benn benn day métti ba leen def deux ans foo ko fekk mooy juróom-ñaar bu bëri ma soxla ma saa rek tamit fàttali ko waaye nag boo defaree bis bi ba ci iya remarque bi bii amul yoon ñaar yàgg na ba ànd amul yoon ñaar li may sax sama sax wala kat attey naka sax na sa fora zim xanaa loolu mooy joon ñaar yi waaye nag pasteur bi nag daf koy melal ci ay meloo ci jërëma gi ay nangam nangam waaye loolu yëpp loolu mooy jàngale yow yaay kan rek kon bakar nag soo ko tegee yàlla digal bakar yi ndaw yi ñu ndaw yi nag mooy yan sëy bi yaa ngi ci ma sëy bi am na fanaa bu wér bu wér am na ngeen bu wér fanaa am na nisa bu wér ci nisa bi yaa ngi wax nisa jox na nisa bi fi yàlla kaw na bi asamaan yëpp ba jox am na ak yooyu nee na sew sawale bàkkaar yi mooy yàlla mooy leen ñoo benn bëyit bëyit bi dana dana bàyyi firi ko nga ne fii man baa xam naa lii wax ba wala xaw ma ne loolu mooy bàkkaar ba yàlla baal na ko sant a nga sant yàlla ne foo wëy nii te yow ngay jaam te yàlla moom moom rek moo war a xam lépp kon nga xam ne yàlla na koy baax. loolu la a gis loolu la koy baax waaw. kenn du xam xam ay xam ni nga ko ko dugg safara sa jaay a ko xamoo ko xamoo ko wóoru wóoru yóbbu waaye nag kuy tiit tamit ngir ngir ragal ngir yàlla ku baax la kuy tiit ci ragal yàlla da ngay tiit ku baax la ndax kat seytaane moom suñ dugg rek dama dara fa ne mu tax mu jajoo sa xol ndax bàyyi moom sàcc dugg moom suñu yàqul la bu ko wóoree fi doon deful bu dugg te yaakaar bu yaakaar dara ko seytaane doon la mel seytaane ba ak yàlla moom su ma yaakaar ne am na baax rek mu dugg xam nga ci baal bi moom yoon nañu ku ngeen su ngeen di bal yëngu sa ñu bal ku leen daal di fi cërëb cërëb ah jënd boisson deux boisson sa kër boutique bu jël deux cent nga ñëw fay deux mille franc te c'est vrai su jot moo ko dépassé donc maa la moo ñor baaw maa la moo moom ñaar VIP VIP ah VIP mas rek VIP mas rek su ne mas rek kat ñu VIP café juróom deux mille lañ la koy jaay ay ay café vingt cinq yooyu deux mille franc Lipton ah ligue d'or cinquante cinquante francs yi ñu doon jaay fii deux mille ngay jël kaas nga xam ne du wane gars yi da ngay naan ligue d'or nag kat ligue d'or kat dara ngay wane ba ngay naan nit moo feebar kon baaxul lu ay feebar bëri moo tax da ngi sant yàlla it tey boo daal su ngeen teegee kabaar bàkkan yii ñu ñor nii maa taxaw yi ngeen aaye woon am ko ci yéen lu kër si. am na góor yoo xam ne sàngara ngay jënd pour dugg. waaw ba tey. xam ne da ngay. waaw ñu lay jaay bouteille champagne quatre vingt dix mille. nga dugg nga mën a dugg yóbbaale say xarit. waaw loolu daal mën a na fi kon nu loo xam soo kese xam bokkal moom loo xam soo kese bi yu ndaw yi léegi xam comme fii àddina ay ñaaw tef yu doxal suñu yàlla yokk nu xamoo ko ay nu kaf sëñ la xaatu naa waaw dëgg wut yàlla dafay def loo xam ne moom dëgg wut parce que li nga def effort ba xam lii gëm ko rek te yàlla yëpp lii te loolu te loolu leer na yow jën jën jaaykat sax léeg-léeg mu jaay rek porta rek mu ñaala waaw soo ko defal mu ñaala ah waaw hmm? liggéeykat da nga liggéey mu gërëm rek jëkkatu may la kon seer seer xam waroon waroon ñëw dugg oto da ngay si sa bële rajo taw bi ci sa dem doomu oto def waroon moom mel ni asma yàlla yëpp de te fekk ak itam loolu xabaar yi maa ko naaw loolu mooy condition bi ankum seer te def yi nag lu kafir ankum seer te ñu yem ci loolu kat wala dëkk ko yàlla dugaleef nañ leen dugaleef nañ leen seen dugalam mu dàqal dugay boo xam ne xamee bu tedd dugay bu tedd nag tedd nit ñi ko ci la tedd kàll ci mu ngi dugay def tàkk dëppam bi bu neex boobu la ajal di neex te sëyal ci leeral nga amoo ci ajal bi di leer moom ci teraanga ci ajal bi amee teraanga yonent bi nag soo koy dem bu dul Cheikh Diagne billaahi lasi laa ilaaha illaa maa ngi ci koor damaa di waxtaan ci yàlla soo waxtaan Cheikh Diagne mooy buntu dal ma ma. Cheikh Diagne mooy buntu Seydina ma te lii nag buntu ak néeg buntu ak néeg ko dox. te bii bu lu mu neex a neex neex buntu bi ko dàq buntu ba dàq lépp gis nga booy daw booy daw booy daw booy daw booy daw booy ñu dàq la dàq la nga bëgg a daw nga dugg ci ñu sa gàncax gàncax waaw yàlla yàlla dugg ji. gars yi dañ ciy leen waaye bu doon sàcc dugg ji néeg. bi fekk ko ñëw taxaw ci bunt bi. waaw léegi nag moom néeg bi amul fenêtre. waaw ni moo ban. moo tax bunt moo taxaw. te bunt yi bunt yi doon amal. daay di daay daay doon ci lu bakkan a may lu wax. Yuusa dafa waxoon ne xanaa mat na xëy ba Aliou. waaw waaw di ngeen ko yëg di ngeen loolu ñu doxoon parce que mu dee am ba war a toog. yéen a ngi koy yéen a ngi koy Babacar Gueye Babacar Mbeg fekk Omar def ko doon teg Aliou dafay mu dafay mundu. man na teg teg seqal dara dama ko. dama xam dëgg ah. waaw ah, guddi moom buntam mooy guddi bëccëg buntam. topp ko rek léeg-léeg di ubbi maa la wax asamaan si bunta muy suus asamaan bunta muy suus parce que lépp luy wërsëg foo am fa la jógee foo jógee suuf rek a jógee parce que wërsëg naa ko waaw asamaan bi wërsëg yëpp fa la jógee waaye doo ko tax da ko gis xaalis mbaa ceeb mbaa diwlin mbaa yàpp bi déedéet yow ci suuf ba pare sana njurgu makalima sada kana kole ma wallahi wallahi masha Allah waaw xam nga boo seetee chariat yi sax bi muy lim wërsëg yi bi muy lim yàlla xam nga yàlla moo yooyu nga xam nga xam nga gars yi naan ñaan ñaan ñoom yàlla ñoom ay ay dañuy wax ay cheikh ay yëpp dañuy wax de yow yaa déggul lii nii yaa déglu diini yàlla sax muy wax du waxee boppam ay diini lay waxee ay nekk ay pétrage wax yi bi kii wax yi wax yi ko yor waaw xanaa yàlla mën mën a jox way bi ñëw fii la waaye dafa doon jiw yow dafa gëmal jiw jiw may kan nag am na ko ndaw fii surtout gars yi ñu wax ma am ko rek taw bi taw bi taw bi taw bi am na ku ko dox kooku mooy tudd mais yàlla mooy taw waaye benn benn ak taw bàcc bi am na ku ko dox gars yi nag ñu lay wërsëg dañ ko ñoom dañ koy yu bon gars yi dañ koy bi jàngat taw bi ak wërsëg yu bon bi ñu kaay Israfil nekk ku rey rek mu jeex man du noonu du noonu Jibril mooy wax yu bi Mikaayil yor taw bi Israfil yor wërsëg bi te tey état mooy malakut mooy bàyyi mooy buntu bi jibril mooy asal Mikael mooy nubbu taw la te li moom taw état mooy wilaay seetal lii mooy wërsëg seetal mooy wërsëg wërsëg seetal moo ko te day xam seetal mooy wërsëg seetal su ko wërsëgee da nga dul tey ba foofu su koy dee rek mu mu mu dis wërsëg wërsëg ñu la neex def say lii mu dugg kenn soog a jox man yàlla nii ndax ak mën a lii maa mën na ganaar nag ñoom boole mën nañ lii ñoom dañ sa wër suñu biir waaw akbar man mos dégg loolu yàlla am évasion fayam sa mën lële moo tax ñeent malaaka yi malaaka mu ne dafa muy liggéey te pourtant yàlla kese moom lépp waaye ku ne dafa jox lu muy liggéey kii mooy lii te loolu jege na yàlla sori na nañ indi fii Sénégal comme réew mi day d'accord nga li koy fii xamuñ li koy fii li koy fii nii xamuñ li ñu mën a commencé dara da doon ñu gëm ñëpp ñu laajte ñu di ree ko ñëpp rek mu ne la nag gis nga naka du douane la douane la moo tax mu ñu daan police kasa gendarmerie kasa bi. atte ñu léeg-léeg nag xëy na xaritam boo xam ne dañ koo not du wax waaye at yeeg yooyu ay douane yeeg policier frontière yooyu moom daal te léegi te moom itam mooy réew mi yàlla na ñëpp bu feebar bi ba pare jox na Mikaël jox na Jibril na ko dafa nàmp Mikaël dem na ba jël dee déggaale

kon moom moom gaaw waaye semaine bi suuf ak xilaafa bi jàmm ñooy rek kon li ma rus taf rus laa bi maay yonent maay seetal maay baax moom lay rey jàmm rey ak ba nag ba yëpp dee na ba taxaw bopp nga taxaw ah xam nga te naa suuf taxaw dina kaay la ba rey ëmb boo yàlla yàlla yow nag man nag ma ko teeral ma ko tudd la gannaaw ci yow

di ndokkeel allah kulli àll dara bi jullit ñu ngi kontaan si wala tatamannaw maa fadala allahu bi ba'dakum ba'dakum ala ba'din aay bi am ñaxtu lool jigéen ñi ci laa mel ni Salama moom moo ne laytanaa kunna rijaalan fa jaahanna wa kaana lanaa mithlu ajri rijaal comme rek daanaka boo xoolee lu ñëw rek lu nekk si biir diine daf leen góor ñi ñooy gën a bëri la ñooy dem jihaad loolu jihaad noonu miraas yi ay na fàtte nañ ne démb njëkk islam jigéen sax moom du daan am waaye dañ ko daan doon naa ñëw jox góor ñaar jox ko benn yooyu yëpp xaw ma fàtte dem bay mébét mébétu ñaxtu la wattu googu la yàlla di tere moo tax moo laa tatamannaw bu leen mébét talaffu bi maanaam bu leen ñax maa la nga xam ne faddala allahu yàlla jëlale na bii duura baadakum leen si yéen ala baadin ci kaw ñenn ñi ci mbiru aduna wala ci mbiru diine bàyyi na lu tax ñu tere ko li allah yu addiya ila taxasub pour mu bañ a yóbbee nit te ci ñaan wa tabaaxul ak bañeel yàlla ngi dalal xelu jigéen ñi wala ngi dalal xelu nii nag nit waaye daal comme aay bi si zaahireem loolu mooy sax musal bi yàlla ni leen jaari ñaan la góor ñi nasibul ak cët ñu màcc rek loo xam ne tasa boobu neen ko ni ngeen ko waxee ci jaar yi yooyu dëgg la waaye nag jigéen ñi wala ni saa yi la jigéen ñi nasibun ak tët ñu màcc tasam na si lépp loo xam ne fàggu leen ko ñoom am leen yool si buñ toppalee seen jëkkër yi bu leen seen jigéen digalee ñu def ko tere leen ñu bàyyi loolu yëpp ay yool yu réer yi ci ne loolu mooy aay bi sarxa bi nag xam naa ne xaw nay gudd dana jël bu bëri bëri incha allah xam naa ne téye ko bu ñu waxee jël waaw ba léegi ñoo ngi continuer ci yàlla subhanahu wa ci waxam mbokk ne day mel ni ngëneel ci kenn ki kenn ku gën kenn ko wala kenn ko am alal te amul dara loolu mooy aaya bi baadukum ala baadi mu ne umu salamata umu salamata soxna la ci ku tedd ki ci gën ñëpp muy Seydina Muhammad soxnaam te moom xam nga lu tax moo lay bii man xaq bi mu may mu may sama soxla man bu laal fël benn man bu moom moo njëkk a gadee mag ànd ak woon te jëriñ ndeysaan wax dëgg yàlla loolu leer na màkk mooy lu bóor dafa njëkk a gadee muy seet ji te man bu gadee benn te dëgg laa wax rek bëgg naa ko waaye ànd ak dëgg de naa ko waaye dëgg laa wax ndeysaan moom ngay boo xaaral juróomi gàddaay mooy juróomi gàddaay bi moom ngay fan gàddaay ñaata gàddaay bi la doo doon mais eh, dama dama tënk rek waaye daal umu salamatu daal sonal sonaloon su tedd ci di ko ci ku tedd bu si dama léegi mu am mébét nag ci xolam dafa amoon mébét daal ci góor ñi li yàlla may li mbëree te ñun jiw ñu tuutile kon loolu bii ay day jigéen ña ko moom bu njëkk jigéen amuloon daal ci islam dañ ko donn ba doonaal jigéen buur bu deewaan danaan donn buur dafa ay jabar kon jigéen ne ba léegi sax ñëwee ba jox ko cëram wax yàlla war ko joxaat nag góor ñaar jigéen ñaar yàlla bu ne góor ñaar jigéen benn jigéen war a doon nag xamoo ko ñu jox la ko tey pour ko jox ne la te yow góor ñaar jigéen benn la tax waroo ko xel nga amagul waaye boo amal xel doo këcc gis nga góor gi ñaare mi am yow am naa benn yow gis nga def banque compte compte ni nga def compte lan compte bloc bi yow. day mi nag balaa dix ans mu joroon lu bëri góor nag moom ñaare bi moom sax yaa sax yaa yaa ngi lekk muy lekk yaa ngi lekk kër yaa ngi lekk courant baa ngi lekk ndox maa ngi lekk ñoom yaa ngi lekk te yow doo joxe dara góor gi ma joxe kon nuyoo waay mu yem su sa dama day jàll jël oto bu la neexee jëlal loo ne ah oto loolu yàlla mu ne walaata tamannaw bu na tamannaaw si nag waatu tamannaaw waaw la yokk ak ndax laa bu leen maa fakka la سيد بريك بوصل طبعا ريك ويكمل صح طبعا انا كلمه لا كمل الله في نك مور لا بريك اي كمل لي لين ام اي بو خالي بابو دي ودي مور فك كل يوم كان ما ورا واجي مسلمات مور ورا واجي يعني دي دو ترا دي جي فاك اي دو ترا المسلمات تيجي وكان كان بيبي ما نجوك waaye tamanoo bu leen mébét maa fadallaahu yàlla gënal bii ci moom ci gënal bi baax doom ñeeni ñi ci ñeen bu may ne la koy wax yàlla kan kay gaw mu ne ah lii daal li ci lu baax dana jigéen nag mu ne ah man ne si mun cër ma tasab na te wax nga arab day jigéen di góor a wax nga góor mën kasagu ma ma ma kasagu boo dama ne baax ak waaw boo muy góor booy jigéen mën ba na kasam na li ma li ma kasam moo tax fatxa fatxa muy góor kaw mu alamisa fatxa kasara muy jigéen sàkkal mu ngi dama man mooy asamaan sàkkal asamaan nag sàkkal gàttal mooy suuf damm mooy Cheikh Ibrahima sukkul mooy ndox mi waaw kooku zéro kooku mooy ihaata ñëpp doo ko gis il fait par exemple arab yi neexul arab yi ñoo neex arab yi ñoo xam ne sàkkal mooy asamaan sàkkal kasara mooy suuf si kasara dawul mooy damm ndox mooy suuf sàcc leen ba léegi nag umu sarbata dafa bindatoon jigéen loon limatoon mais ñun daal dëgg la góor ñu ëpp yoon ci yàlla parce dem xare yi ñoom ñooy dem di dundal jàkka yi ñoom ñooy euh, joxe dépense yi ñoom fay courant ak kër ñoo def lépp maanaam daal lépp lu nit di yàlla war a fayee dara daal dañoo xool ne la góor mooy tëppale góor moo koy def ñun yow day sàll day sàll te yàlla lu mu defal góor a defal ko mu nga ay seesu ba tax ñun sa sànn ak ñu lu diine jëkkër Do the Lord. Huh? Oh. To you. How will you give the credit? Come along where? Go away that one. Yılma şeytan, selam bir lüzün indirap. Şeytan, lüzün indirap. Gör, gör var mı? Gör mü? Gör mü? léegi nag comme boo ñu dem xare yi ñooy def lii ñooy def laa ñooy def lii ñooy def laa ba mu bëri te gis ñu daal jigéen yàlla nga xalifa yàlla lu mu foor foor foor jigéen la nga dégg moo gàtt jigéen la yàlla dañu xalifa yàlla regarde lu fort fort fort diir ko yëf kooku ñu gis nga at mi bii di nekk loo nee na xel yàlla pourcent mooy mooy liif allahu yàlla moom li la xam na ko baax te loo xam-xam-xam ko xaqiqa zalimul li zalim zalim loo xam-xam baati zalim zalimul li dara loo ma de xam naan nelaw da nga nelaw da nga lekk da nga naan da nga takk daamu tay rek ama yëri sallallahu alayhi wa sallam li wajadtum baratan tamliku inni wajadtu imra'atan tamlik wala akbar wala yow nag saa yi boo koy jàng damay damay kontaan hmm. da bu koy jàng nag ci ci ci gam mooy waaw waaw waaw waaw waaw moo tax ay dëgg-dëgg li ñuy sotti li ñuy génne ëppoon nañu ko gëstu ëppoon nañu ko wax. boo ko waxee da nga koy génne. waaw dañuy dañuy dañuy kontaan. Hmm. su ma ñu laalee ci kaw moom bu bu wéy bu wéy déglu ak ndaw ma bu tey timide na mu ñëw ay wàll yi bu timide day ñëw bu wéy déglu rek. te bàyyi waxoon ne su ma nekkee ci ci bala nga xam ne ci yàlla jiw jot. waaye bu déglu dara kenn laaj bi. kon waaw taxaw na waaw. parce que par rapport la jàngale la. wala dama naw bu leen mébét yéen jigéen ñi kon. ba timis jot na nag. mooy dëgg yéen jigéen ñi bu leen mébét xam nga li yàlla gën a bii ci góor ñi noonu koy gën. waaw ah, ah, waaw ah, waaw waaw waaw yow comme comme jigéen moo lay laaj. bu laalee ci sa mesure. waaw kay waaw kay. comme soxla te jigéen moo lay laaj bi ngir jigéen gi góor ñi li ñu am ci ay yoon ni mu bëri. moo tax ma laaj bi léegi bu la neexee ba tur tur moo bi di ko fii ne waa tamanaw bu leen mébét maa fa daaw li yëpp daal gën a dugg ci góor ñi njiit yi du dugg téere woon taxaw leen jël mën a nekk baax na comme nag ala baax di leen ci leen nag mooy ñu ko ak jigéen nag léegi nag lii boo firee xam nga xam nga lii firi dafa yàlla ci kaw suuf si mooy góor taalibe bi ñu ko topp ay jigéen lañ ci moom te taalibe bu nekk mu ngi mi ngi toog fa suñ ko toog léegi sax mën naa baax mën naa baax waaw bu bu mu xanaa la. waaw mën na ñaan nag ah xam nga mën nga ñaan yàlla di kii rek. ah kii rek rek grâce bi ñëw. waaw waaw xam naa. waaw. maa ngi tudd moo yaakaar maa ngi tudd maa ngi rek. ah dugal jéem a yooyu mu ngi dee. xam naa maa ko war a seet seetal maqaamam xam nga seetal moom am na yeneen organisation ci moom. ah amul seet yàlla même amul seet yàlla. xam nga lu tax seet yàlla suñu fee dafa gaaw. wilaay xam nga maqaama seet yàlla bi balaa seet la ñëw bëri ñu ngi def bu doon. seetal maqaama balaa mu ñëw bëri ot la bu dee leen bëri ot lañu maqaam boobu. gannaaw suñu doon. te. njëkk Cheikh Tidiane kenn du fay ko Cheikh Tidiane gannaaw la moom yàlla na biñ suuf suuf mën a jëmaat mu bëgg a gaaw gannaaw moom dafa daan sama xam nga comme ñëwagul sax yàlla mën naa dimbale parce que ñëwagul yow loolu boo xoolee tuub yàlla baal la amul ko ñëwagul moo tax waaye waaye xam ñu bëri man la ba nekk moom pare ñëpp gannaaw nga ne man la subhanallah boobu kenn doo baax yàlla mën a suuf suuf mën a jëmaat wa yakun bil imaami faqad habita amaluhu ila axiri xaasira da leen seetal kon bu leen réer boo gars yi bu ngeen réer toog ci ma xam waa ji waaye nag da ngeen bébét nag nekk àndandoom bu baax bu leen bébét bii ci lii daal bu ngeen lii yàlla wax na ko bébét leen na nekk àndandoo yu baax yu dëgg yu am xam-xam yoo xam ne fu mu sëg ngeen sëg waaw bu ñu tooñ nga dagg waaw mo réalité réalité loolu maa ngi ci kan muy tudd dañu yëpp sol dama wax bi ci kan muy tudd ñaan yàlla rek nga leen fi tam mu ne baal comme nee naa la baale mooy sëñ bel taalibe rek gis nga su pasahel yi seet yi dal seeteel ak yoon bi sama bàyyi ñoom ñooy góor ñi ñi ngeen topp yëpp ay jigéen ci ñoom ñun bu ñu mënee pour nekk yonent bi wala nangu ma xaw ma nangu ma xaw déedéet parce que maqaam yi moo la seen ko yóbbu moo la ko jur bopp. ndax bàyyi ne dafa daan abdu suhuur fu abdu suhuur ndax day woon bay bu neex la day. waaw waaw waaw waaw loolu moom mooy ayu tali. loolu moom beneen bëgg. waaw loolu ma day beneen bëgg la. waaye nag mën nga mébét sëriñ bi ànd ak moom ci mbooleem maqaam yi am ak droit def moom rek moo am droit def idaasa moom rek pour moom war a ko def war a def idaasa rawatina Isa bi tudd Ilaw. mu ne la sax may na sa may na nga may nag mu xeet. maanaam ñu ne maye mu xeet. waaye waaye Ilaw Ilaw moom. fekk yàlla mu rek ma ko Ilaw. sa Ilaw. ñu ne na Ilaw lay ñaan. mu neex. wa maa arsalnaa min rasulin illaa bilisaani. kon mu xeet la. parce que Ilaw kaafatan. Ilaw. Allahu akbar. yàlla moo tax yoon moo tëgal rek moo am nekk moo am soo ko nekkee bind soo ko nekkee bañ a bind parce que xam noo ko doxee lakk du maxi coono ngay bind su ko nekkee moom bind këyit bi pour ñu barkeeloo ko ma na tabax tabaxkaan maanaam lu nga tey lu nga ëllëg bii moo demoon lijaasa bii waaw loolu moom ci yow rek waaye mën na ko defal sans mu laal sa loxo laal la nii li ama ngeen di wax ñu ay feuille verse la ñu verse kon suñu bind moom fees kay ngay mën a lijaasa yi mooy war léegi nag kon maa ngi woon biir nag taalibe bi ak sëriñ bi sëriñ mooy ku xam taalibe mooy ci sax xam-xam ci moom na mébét am xam-xam bu wér waaye place koy gar moom mën a fa toog parce que ñun sax moom waxoon ko pare yàlla waxoon ko pare yàlla moom sax lii day war a reñaan dañ ñu wax lu mu wax nit te xam-xam la sama borom beneen pour ñëpp la xam nga la xam nga la mooy loi islamique du charia man ak la man ma nangul càq man ma ma déglu lii ba benn benn benn ma man tamit kottu waxu la xam naa ko keroog ba ma demee Casamance ma ne ab ma ne ko ma woon na ko gis sol bët ma ne tey pourcent bi mu wër ak li wër daf li ngay tuddee campagne mais ba biir bi tànn ko ci kanam moom moom sama xarit ma mag yi sànq. ñett xatam ko borom demul benn bi mooy loi bi loi Sénégal bi tegal nañ ko ñett ku bëgg ak ku bëgg daal tegal nañ ko ñëpp rek loi bi ba ci moom ba ci moom loi bi ko parce que da leen bàjjale bopp ëllëg am ëllëg fay bàtt waaw ëllëg fay bàtt ma sa loi moom pour ñëpp léegi nag nga ko am doyee nag moom loi bi kaw may faveur tuuti waaye dara bisa nga ñëw waaw loolu loolu dëgg lu gudd la te bis bu moom doole kenn muy dugg ko kii kii kenn ati fi ko kenn muy wax jëloo dugg ko waaw misaal ab bi Abdoulaye Wade bi nekkee réew yor loi bi yëpp soo ko yëpp faveur doom lépp maire terre leer kenn kenn ko jox lépp luy daw ci avion yi ci at bi ci ci ci ci ci ci Sénégal kër waa kenn rek loolu dëgg la parce que yor yu bëri bu mag waaye ba mu nee ba wàcc ba wàcc ba kenn doxal jërëwul ngeen doon at doom la kon loolu loolu lii mooy loi lu ko soxla ba muy def beneen bi nag secret d'état la secret d'état bi état rek na ko ñoom bu si dama mooy leer yàlla li mu def noonu mooy am ci àdduna te na nguuru àdduna bii ak nguuru yàlla bii benn nguur bu ayla bu niroog xamoo nit dafa for bee xam nga réew yaram réew la yaram yaram mooy réew yaram mooy réew moom mooy at bi lii mooy réew ay ruum ci yaram bi nag mooy président réew président réew tey nag mën na sax ay ministres yeeg kooku ak yooyu ministre information kan la kàddu gi information bi génne gi ñun ci biir ministre l' information. service étrangère nag communication ba tey communication bu fa la ah dafa am communication. hydraulique hydraulique. 24 ay saw. 200 fois nag ba tey ñaari foofu la am 200 fois. douze douze douze douze douze assainissement assainissement am na lu si assainissement am na waaye mooy dafa yoraale dafa yoraale air nag am na day yoraale air bi foofu la am rien que défense défense défense waaw ah. ministre transport transport léegi nag ministre bi yor fa ñu àttee fa ñu kii gars yi assemblée assemblée nationale mooy xool la gars yi daje ministre ba fa nekk mooy kan bi mooy njiitu gars yi. a asamaan sama may xam waaw bu lay wax sa xalaat day nag kenn wax sa xalaat ba pare mu tëj sax mooy alamul akbar bi allahu akbar bi mooy alamul akbar da bàyyi foofu la suñu suñu kii mu ne nit mooy alamul akbar te yàlla yàlla gërëm Cheikh Ibrahim kon ay bi dëgg-dëgg jigéen ñi am nañ ci foo war kon jigéen ñi lii fi rek mooy taalibe bi foo war yi sëñ bi am yëpp dana am benn nañ ko koy déglu bu dul boobu rek mën na ko am mooy mu nekk ci borom a xaam rek mais pour loolu lu sëñ bi xam-xam dañoo ko bokk ci nekk te taalibe moo gën a foor sa sëriñ ci may ah parce que boo nee yàlla taalibe mu ne maa yàlla maa yonent maa yonent maa yonent yàlla bi ne voilà mais boo ko joxee ñeenti éléments yi jox ko waaw rek. bind yoo xam yow ñeenteelu ma Cheikh Tidiane am benn ma bàyyi am benn ma bu la neex wala ñeenteelu yàq ma ma ne ma yu bëri yàq ma waaye yow ne yow ma yow yow kon yëpp yow yéen a yëpp yàq boole waaw waaw ma jaasa xaq yéen moom mooy lan waaye ma jaasa ma jaasa ma jaasa ma jaasa boo ko doon waxee xam nga li ma jaasa ah micro bi ma waxee lan la du ma jaasa boo ko waxee da nga dégg lool maa ngi nii di wax. boo ko jëlee guddi boo koy làmp ma lan lañ leer fii ànd ak leer nag làmp yi ma jaas moom moom du Coran bi moom du fekk moom du fii bi Coran bi leer ka gën nañ bu wekkee ñàkk mbirum dës ge majaas la waaye majaas la ci la bokk ata ma ne majaas dafa garaaw majaas la bu la majaas nga na nga dangay mer rek fekk doo dara ak ah kay doo dara boo may dara bu ko amee bokk rek majaas bokk na man doxin la rek hmm, doxin la rek lu nekk jàngale la kon ñu ngi ñu ngi ci xam yàlla loolu la waaye majas baax na kon ay bi jigéen ñi ñoom ñooy dem marché te dem marché danse la dem marché lu mën ci fekk oto man laa fil da nga tafa sa xaalis bi man nga def lu nekk coono boobu ngay def taw bi ci sonn bi dem dem marché dugg nanu ñëwaat dugg ci wàññi saxaar si bi la kenn ko dama teew góor bu taxee fi miin rek doyal xoolal góor ba pare ñu may mi cinq mille day doy léegi gën dem non da nga di ka ma nekk dafa ñàkk tuut rek moo lay am fu ñu béy ba mu jàll ba mu ñor ñëw tegal la nga soog a mos a nekk naqari da nga war a neex na ni mu ko même ne neex day da nga rek xam nga yàlla na la loolu loolu mooy loolu mooy àq nga kuy seet jabar bu kaay bi nga ëppee nga ay xel loolu day day non kan bokkul da bu may téléphone xam naa la démb ak ak ñëwoon loolu day di ñaan nag loolu boobu effort bi li nga def ndaw si biy toog affaire bi wala malaaka yi yàlla yëpp ñu ñu poste bi ci liggéey bi ñu ndaw si biir ci wàll. malaaka yëpp liggéey lañ faral. ba ngay dem marché ba ngay togg ba ngay safara ma da ko togg ba mu ñor ndax la la lañ ci aajo jënd ko jënd li jënd rek mu ne ban géej la doon naawee ak ban mool moo ko jàpp ak bële la ko jàpp. liñ doon defar nga jaay ko benn commencement boo ko jaay ko kii jaay ko kii ba nga yow ba nga yow ba nga yow kii nga jënd xooloo safara yi gasaare ko dogal safara yi fan la jógee nga togg ba mu ñor xob teg ko mën a yem ñu ubbi a yërmande ëf ko sa du béy ko lekk. dëgg la de ah boo ko fi. yàlla lu mu for ma jël yàlla digal na ba dégg ko yàlla yàlla wóolu bàyyi ci kër dafa wóoluwut du ko soxla jigóor ba tëmb dafa wóoluwut dañ ko wóoluwut dafa day def dañ ko soxla dégg moom dafa seba moom dafa dox diggante nag comme dafa tranquille moom ko moom moom kër gi bu mun kër yàlla fay yow yàlla ko amal yàlla koy dégg moom mu ko neuf mois jël ko nag xale ah, léeg-léeg xale mënoon nàmpal yow mënoon nàmpal dama la man joxe ñu lekk waaye nàmpal moom wóoluwut man jigéen rek mooy naa ko waaw wala rek xool liir ni mi téye liir ni métti rek jigéen mën na ko téye benn kër te yow boo ko téye yow cinq mille yow cinq yow cinq sa bëri ñaari mille waay rek suñu koy ba nga teg moo ne moom day sant tur jooju moom mu bëgg mu ngi ufay guddi doo nelaw moom du nelaw yow da ngay nelaw ba xam naa du nelaw xoolal coono bi jigéen nekkee ni toll moo tax su ma gisee leen dafa déglu dafa xamul ñu xamul parce que yàlla indi na aaya bi nag léegi wala li saa yu nag ñu mat soxla am na am yu soxla te xale bi balaa mën a xale jigéen jàng xale bala ngaa koy jigéen jàng parce que bala nga lekk suuf nan de man bi jigéen ngay parce que turu day joxe ndox yi yaa togg njëkk yi nga def nangam nangam pour nga mën a xale jigéen te jigéen yi sonn nag ñoo lay ñoo lay ñoo lay xamal ci xale yi Benda belum pergi sejak kota orang pun. Ah, mana tak baik. Tak kaya yang Ah, bila sur, bila sur. Bisa benda benda bujuk bujuk mikro sini macam ni. Mempunyai kalian diri mereka tak kau nak buku tu. Hak ayak ni. Hak tak lebih mikro sini. Kau. Kau macam tu. ভালো ভালো গাড়ির ডোর প্যাকিং জানি ফিল আপ ওয়াও dëgg dëgg waaw kon ay bi bëri na torop ay ay gëne ba tey gën a ay taxaali ba kat. taxaali ba sax taxaali ba sax bi yëpp digal ak moom. moo tax yàlla yërëm ko la nga doon xayma mos na laa rek. ñaareel dëgg la rek yow sax yow ñoo ñu loolu. waaw yàlla nga li nga leen bëri nañ. suñu digal moo ko moom ni góor moo ko moom. loolu moo tax Cheikh te ba mu ñaanee yàlla. yàlla jox na ko lépp yow sax amoon am na ko sax amul ko. Cheikh Cheikh ñaan nga ñaan yàlla. wéeru yàlla. loolu yàlla jox na ko lu ñu lu ko yónni Cheikh Ndiaye yónni ko Cheikh Ndiaye moom dafa dugg bu naan bala man bala tas ne gën yoon bi yow fa am asal te ñu doon ñu ko par mu ñëwaat am encore ci abat jël mu yëg moo lu moo lu te yoon bi ba tey xaatuma anbiya yi yoon ñëwut moom moo xam loolu daal njëkkam na gannaaw wulu amoon fekk ci bu yaay mooy at yaay tudd na Cheikh Ndiaye li nga mos soxlaa nag ñaan yàlla dina la rek ndax ba mu ñaan yàlla jënd mu ñaan yàlla yàlla defal moom si kat te yonent bi te Cheikh Tidiane moo gën yonent bi loolu moom gars yi dañu si saal li ma saalal xal bi rek bàyyi moo ne yonent bi asamaan suuf si dana xulu ku ne ñu wax ci yonent bi yow yàlla yow la yow la yow la yow la ñaanee yaa ci moom. sa jo da yàlla joxe julli yi nangam nangam nangam suuf suuf jooy suuf na ko yooyu tamit man yonent bi sama kaw lay dox yonent bi sama kaw lay waxtaan li ñu waxtaan yonent bi bu dee sama kaw lay suuf rek kas man jooy mu ne waaye reer bi ngi jële ko bàyyi na yéen ñaar bu ñu ko coow ñaar bu ñu ko coow ci sa yëngu ma koy te ruur ko coow ñaar ma wax yenn ko coow ma wax yéen suñu wóor ci kon ñu ngi sant yàlla am nañ seen gër bi daanaka ay bay neex rek masala laa bi laa bëgg fi rek ñun fëri bii kon jigéen a ngóob gaa yi jigéen a ngóob jigéen ñi muñ leen rek yéen yàlla faral gaa ne nu fi ay normal rek léeg-léeg ñu fi nga sol leen sol leen sunu mbir da nga jiir bii waaye boo dee yëg ay firkat waaw sama njaay moom bu ñëwee moom moom day tuddee yàlla wax moom su rek yi ñu am suñu tër suñu yi ñam parce que waskuru laa ñun sa bii kon taalibe yi da ngeen jigéen bu wax taalibe yi sax ngeen dañoo leen jigéen ndax yàlla jigéen leen rek daal jox nag yàlla kay moom ah dëgg dëgg kaa na bopp lépp nag ñoom lépp la kon aaya bi ni ko yemale fii grain yi nag bëri na tuwax yàlla ci sax waaye lii doy na hmm? waaw sara sara nga fële ñu faj waxanti sara yi xanaa waraan neex moom it xam naa ni aaya bi neexee rek man xam naa lay sara yi neexee kon ñu sant yàlla gars yi di kontaan trop di leen gërëmati di am bégte ak kontaan ca xadam toujours lii rafet na te xam naa ne wóor na yàlla kontaan na ndax tey fii bi ñu fi ñett yi yàqu xool yi du mucc ñett yàqu xool yi du mucc xamoo sa bero nag xamoo ko xamoo sa bero da ngay xat da ngay xalaat xamoo ba gën a suñu néeg lekkoo naanoo jëwoo su ko yàqu beru sa biir ne yow kenn kese lekkoo naanoo sëyoo ak pëy pëy nii hmm? dara te sa xol mën a yàqu ɗum ɗo on jow kel xamuta naga ɗo sene concentre sakalen sel gel mo ben sebene gel mo jow xam nga léegi jigéen ñi moo tax yàlla ko foog lii ñu ne gis nga bëgg yii dañ koy sëggal bu nekk France waa sa far waa sa ndigal sama dama nekk fii ngeen sëy mais waat na waat na waat ba kenn ko yóbbu am na léegi sëy bi di di di di di sens ngi sant yàlla bu baax yàlla xam na moom waaye boo tegee jotaay bi nag moom wax dëgg yàlla da nga sulaat da mucc ci jëw dafa dal mais du leneen waaye lu jëw leneen sa pay dina mucc encore ci jigéen moom mooy dox fii la koy am rapport sa ak kenn na defal moo te yaa ngi doon <laughs> waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm di leen ndokkeel kontaan trop rafet na taaru na defal ñu jàmm incha allah gi mu ngi dem léegi tey ñàkk war nekk gàcce gàcce bu rëy ñu ñàkk koor moom gàcce lay nekk ci ab ndax boo waree ak ak ci xam man suma ak su pratiquement sama différence ci ci wàllu kàttan bi wala wala wax ni bëriwul ndaxte dafa am xam ne yàlla leen may lekk du du leen sonal boo tey lekk la waaye solu leen xam du mel loolu nag mën a nekk wér mën nekk feebar ñaare mën nekk wér mën nekk feebar ku wér dana lekk waaye moom bu lekkee dafay mën a xam lekk bi ban temps lay am si moom mu koy muñ mu ko muñ ba mu jeex ci yàlla mu doon mu doon lekk am lu mu doon jàppale ku feebar nag moom bu lekkee moom bu xiif bi parce que da ngaa war a sax waaye man am naa boobu maanaam boobu boobu laa boobu da ngaa war a sax nga toog lu war ba dix heures daal te du des mën a nekk waaw loolu mën a nekk waaye mën a nekk waaye yàlla yàlla may ñu daal te moom su soxla bu ñu koy daal ñu am benn problème ñu am kattan bu baax yow maanaam nga réer sama gars yi papa ma xaw ma jafe neex na trop mais dafa gaaw bu ñu demee cinq minutes dina am xaw a gaaw koo joxe gaaw joxe gaaw woo moo moo moo moo kilo bàyyi ma gaaw woo bi baax waaye ma baal ma bàyyi ma wut ñëw rek prix bi mu ngi yëgal rek wàccaat wàccaat man dana yëgaat wàccaat dana yëgal mën a waaw salaamaaleykum. <laughs> loolu yëpp koor moo waral kon yàlla yàlla mel ni koor jàmm te bu daxaar neex na lool gars yi bu daxaar li ngeen nekk fee tax rek waaye bu ngeen nekk kàddu dina boole kon Saalum nii wala wala wala Fuuta fii ay nodd bi te boo dogee sax nag doo xam sax nit ñi na doo baax doo am lu doy dégg naa gars yi benn booy wax na ma ne Casamance ñu koy def benn mbuusu glace 500 mbuusu glace bu sew bu daw 500 la ñuy def ah dégg nga su tamit quoi kon nag suy nekk nii ajana xam nga ne bii ah, da ngay toog doon naan ko da ngay toog doon naan. ak ko toogal léegi nag waaw déedéet naan nag gis nga déedéet naan ñàkk naan baaxul ci nit su ko war li muy li yàq ci nit naan moo gën wala ngay pat même soo mënul wala ngay pat doon tuuti moroom fexe bi lii tur doxal ko ay bëgg wax yeneen bi dafa lay tooyal yeneen warta woon dana yeneen su wooyee yàq na élément yu bëri yàq jël daal su bëri ma ci nekk waaye booy naan loo xam ne da koy tooyal da koy tooyal da ko soxla bëri soxla bëri maa ngi bëgg ba su ma nee ñeenti dëgg ngay soxla bëri waaye boo nekkee boo nekk un litre kese boo ko naanee doo soxla parce que yaram bi daf koy doy balaa ñu gërëm bay ba yaram bi di tooy rek soxla du amati boo nee nag quatre litres nag doy benn bi mooy dem ci yaram bi tooy bi ngay def moo tax ngay soxla bëri dégg nga loolu kon da leen naan au moins benn litre ngeen dogee bu ngeen dee bay tudd wala bu ngeen dee ba quatre heures du matin bu ngeen yeewoo noonu ngeen am benn kër toog loolu dara nga doog a miinu rek da nga ko miinu waaye loolu daa xaaral da ko miinu xam nga ndox xam nga fekk nga xaar ba mar ndox doon naan sax bi tamit produit bu dee xaar ba mar doo koy naan doo mar bi mais nag yow su ñu soo ko marul waaw soo ko ñu ngi marul te boo déggee daf day yàlla sëñ doo mar tan tan waaye nag boo dogee nag yooyu maroo waaye da ngay gis ne nga sant ne nga da ngaa da xam ne seetlu na mu ndox waaw ah, ndox li ci war a nekkul ci léegi nag boo nawee ndox nag litre dafa dugg ci yaram bi dugg seey di seey ba boo dogee nag ba quatre ans naan litre nag foofu mën waaye yow naan ñaari doon moom lu mu tuut tuut tuut tuut ku ne war na ko dégg wala boo wala bu au moins un litre dégg. naan ndox sax bu yàggee da ngay da ngay miin naan. waaw dafa koy bayal lu lu wax au moins un litre dégg moom lu mu tuut tuut tuut di war a ko lekk naan bu doyee. boo dee lekk tuuti toog tuuti dem ruq ko naan litre dégg bi nga war naan ci mocc toogaat ba ci kër gi wax dëgg lekk demaat dugub bi naan. boo demee quatre vingt soxna yowaat na moo gën toog moom na. parce que Auro seen vision barakatul. waaw waaw ñu koy bay yeewal man ñàkk a moom am ñu koy bay yeewal teel a yeew waaw man na ñàkk dama arrangé rek man dama arrangé man kat la moom arrangé waaw kat la moom arrangé man su ma kattee ah man bëgg naa guddi ma ko su ma kattee ma ràññeewu guddi te su ma nee su ma ko dee rek. xam nga jàngkat daanaka amul différence su bari. waaw bariwul de waaw xanaa rek xanaa rek amul sax dafa sunnaal kon boo sunnaal rek xëy na nga yeew naan wax dëgg waaw boo nekk loolu parce que waaw waaw da nga mën rek gis nga gis nga boo lekk ba suñu fees daan lu bëri nii yaa ngi doon parce que day réer daa am problème mu laata rek yàlla jox ñu ñuy naan